ko barricade këram te moom waxu wa moom sabbaaru muy muñ muy muñkat mhm. toog di muñ rek mhm. moo tax ma ne leen nag buñ ko naree barricade 49 jours gis nga bi 49 jours yi matee mhm. dañ cee teg ñetti fan rek ñu daal di dindi barricade boobu waaye nag maanaam solo ba mooy li Cheikh Samba Diarra Mbaye sa maam di wax naan lu ne fi nit ne nag njëkkam lu ne fi nit mhm. ne nag njëkkam mhm. baaxu keroogay law ba tey mhm. bonu keroogit du moy lu waa lu waay meloon mooy li tay tey bur yàlla yëm naa kàttanam na al arwaaxu junoodul mu jannada yàlla ca kaw la programme ñëpp la programme lépp nit ki descendaawam fépp fu mu war aw waaye nag liñ naan bokk ci coow li xam li xew da ko gën moo tax ma xam ni daal 49 jours yi moom dana mat moo tax nag gis nga li ci gën a yéeme. Mhm. mooy dafa feete la quinze. Mhm. quarante neuf ans. Mhm. ba tey tam mun ñëw na. ndax 1974 la. 2023. lu muy doon du 49 ans. mu feete la 15 49 ans. le 16 bi la matal 49 jours. ndax la 28 lañ barricade woon kër ga. léegi mu matal. kon loolu na da ngay nag maanaam feete 49 ans matal 49 jours. te Seydina Ousmane Ibn Xafaan. ñu barricadé woon këram 49 jours. ba noppi ñu dind ko ci 52e jour. waaw ñu dind ko ci 5 ak 2 aussi. Mhm. Mhm. boo xam ne chiffre bu boo xoolee ñu dindi le 24. Mhm. Hmm? le ko dindi. lañ dindi barricade bi. la. Hmm? waaw léegi dafa naa mooy le 24 bi ah bërki démb mooy le 24. léegi le 24 ba tey chiffre 7 bi day taxaw. 52 jours. du mooy 7. léegi tamit 24eem. la 24 ci weer wi. Mhm. léegi 24 moom. 2. Mhm. waaw mhm. waa 4 waa 6. waa day nekk sixième jour. ba tey nga gis ni maanaam ñu daal di koy dindi barikaat ba mais solo ba. mooy tamit mën naa nekk tertal ci gouvernement bi. wala axlam nag. mën na nekk lu ñu ne nag maanaam dafa bokkal ak Seydina Ousmane Ibn Xafaan. tabixa te moom bi ñu ko bëggee jéemal moom Seydina Ousmane Ibn Xafaan dañu ne faw ñu barikaade ko. bu ngeen ko barikaadee 49 dingeen dindi pouvoir am lu ngeen ko jéemal rek maanaam da ngeen koy mën a dara waaye moom mujjantalam dañ ko assassiné mhm. moo tax ma ni leen nag lii raam mën na jëm ci ñag bi kon nag nañu arrêté nu mu gën a gaawee mais Sénégal day dëkk boo xam ne nag neexut a waxee mhm. booy wax li xew mhm. ñoom dañuy bëgg nag sénégalais dafa am benn philosophie boo xam ne fa mu bëgg nga xool fa la bëgg nga xool fa muy xool la bëgg ngay xool waaye la mu bëgg la bëgg nga di ko wax la mu bëgg dégg boo ko waxul rek yaay doon seen noonu mhm. waaye na fekk na booba yàqunu mais dañ doon alerté mhm. ndax dañu ne maanaam mujjantalam liiraam mën naa jëm ca ñag ba mhm. kon gis nga ñaari 49 yi ñaari 49 yi waaw wa min karamatihi an xaasarooxu tammun yow man xalaat daari zulman wax wa sabbaal waaw ah, waaye mujjantalam moom wala xiyaasu billah macha allah moo tax lépp daal mënee su koo wax waaw xam yoo xamante ne moom mi ngi noonu way way ci suuf la waaw ci suuf la kenn du ko question boobu ko dugal waaw parce waaw ci hmm. dama dégg maam Cheikh di wax. Hmm. tey ci maanaam xaatim yi hmm. ba ñëw ci xaatimu Souleymane. ma dégg. te digg des nit. mu jaral ko pour mu am xaatimu Souleymane ñu bindal ko ko muy fay ay junni yi bare bare bare bare. secret xaatimu Souleymane lan la. xam nga li ko waral mooy. moo nar képp lépp. fardu jabaaru sakooru sawaabu zakiru xabiru zaki muy sept jours yooyu noonu. bis bu nek tay bu buñ la indiloon ku feebar bisub dimanche yang ko wara duggé fardu khawatim bi mhm. fardu lay duggé ba sës fardu jabaatu sa ko sawab zakiru khabir zaki après nga ñëw zaki mhm. wat ba ca fardu ba wacewati wacce wat fi ba tej ko mhm. bu dafa ñew bisub dimas nak ngay duggé loolu bunye bu ñewé bisub lundi yaangi duggé duggee ngay duggé bis bi nga xamné ci lañ la indil malade bi rek bis boobu ngay dugalee xaatimu Suleymaan bi mm-hmm. maanaam sangu ko bu fekkee ci moom rab mm-hmm. wala dañ koo liggéey wala seytaane ne da koy bàyyi ca saasa mm-hmm. waaye nag dafxu la ak jalbu ni muy dindee lépp lu bon di toj njabar ci nit noonu la lay joxee buur sëriñ alxaaji baara radiyallahu taala anhu am na jaaro yañ doon joxe muy jaaro yi siñ fàllu boo xoolee ci kaw na soxna muslimatu jëlee na ko ci baayam ba tàyyi moom sëñ Alaaji Baara mhm. ñu ngi koy ziar di ziar yi it soxna maam Faati mhm. bàjjanam mhm. moom sëriñ Fàllu mi ma yar ak sëriñ Murtada moom sëriñ Fadilu ak sëriñ Yaddaali ak mhm. soxna Juma Sey yal na yàlla yokk leeram ñu yaroo ci kàppaar boobu noonu ku ñu xam-xam ni li fi ñun ñëpp mhm. rek mhm. na sëriñ bi daawul wax ku la jur ku la yar la daa wax ne sama kër yar bi ku ko yóbbu ba woo fi dara waaye ku ko fi bàyyi it yóbbu woo dara ndax base lépp mooy yar moo tax ku la yar lañ daa wax léegi nag nga gis Souleymane boobu boo ko jëfandikoo mulkul Souleymane di nga am buur di nga am bayre di nga am yëkkatiku lépp ci koo xam ne xamna waye nak alif lam mim allah la ilaha illa huwa hmm. mom la parce que bo gisé manam leer ne de dañoo yaakaar ni la wala khaf waye hmm. waw sanni la ñi hmm. nga zakki yu non waw sanni la mi ngi japp alif lam mim allah la ilaha illa huwa fofu la yam moy fardu jabbaru sakooru sawaabu zakiru khabir zakki mom la tuwab yi di pirate manam di ko doxalee seen système yu bare bare bare muy mulkul sulaiman mom la yalla taxawalon mulkul Souleymane ba gis naa man ci xikmatu eh, baalix mhm. bu Serigne Touba bind mhm. di wax gëneel yi ko yàlla defal ci maanaam fardu jabaaru sakooru sawabu zaxilu xabiir ku dem ci xikmatu seexul xadim muy xikmatu mhm. baalix di nga fa fekk Serigne bi benn bunt bu muy wax gëneel yi ko yàlla defal ci xaatimu Souleymane moo tax faali laaj nga lu am solo moo tax ku ko xam jar na sol daal li wañ ba gis ki mën xaatimu mm. Souleymane mm. mu dimbali la ci. macha allah am na waaw moo nekk noonu macha allah. waaw waaw. <laughs> xaatimu Souleymane la. ndeysaan wallaahi ndeysaan. kilifa gi ma ko bindal. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. tax mu jox ma ko. Mm-hmm. moo xam lu tax mu jox ma ndeysaan moo ma wóolu ba këram. ni ma dan ma jox ndigal ma bindal la xaatimu Souleymane pour nga takk ko mhm. te maa ngi koy gërëm bu baax muy Ahmadou mhm. muy Ahmadou ñu goo ko wax Ahmadou borom jinne yi mhm. kon alhamdulilah jërëjëf Ahmadou macha allah kon maam Cheikh jërëjëf ayca umu barakallahu koy jaar Ahmadou borom sëñ maam jërëjëf Fall mhm. Ndiaga Yaram mhm. niveau bi kawe na mhm. kii ñëw it gën a yokk niveau bi ah <laughs> ngi lay nuyu yow bu baax a baax a baax euh, xanaa damay génnaat foofu tuuti rek laaj la benn laaj bu ndaw ndax dama doon dégg euh, ci mag ñi dañu naan nawet bu xale di foowantoo tëgg sax ñu ne la arrêté ko baaxul sabar yeeg yépp dañ ko daan aj di ko tere léegi nag damay hmm. laaj ndax loolu bidaa la hmm. wala lu wér la hmm. beneen bi ci topp Yves wax na ko sànq accident yi bëri na euh, yii am xam nga olof day faral di naan nattu am na waaye euh, ndogal is aussi dina daanu ci loxo kii sàggan ndax dafa am lu ñu waroon a def te defuñu ko wala dañu def lu ñu warta def wala dañu bàyyi yoon waaw kay jërëjëf soxna Umu ci laaj bi. Mm-hmm. laaj nga lu am solo. Mm-hmm. lu mat a bàyyi xel. Mm-hmm. mooy dañoo wàcc sunu ànd. wàcc sunu yoon. bari luñu dugal léegi ci yëf yi te bokk ci. bëri luñ ci génne ci la. ndax ñi jàng téere yu weex yi. ak agression culturelle bi dafa waral perte de valeur gi nga xam ne. Sénégal dañoo wàcc sunu ànd. te mag ñi lépp lu fi baaxoon. seen bidaa sax bidaa bu rafet la daa doon. ba tey seen aada it day nekk aada bu rafet mhm. ndax ñoom daaw ñu defee hasard lu ñu mësaan a def rek luy jural Sénégal jàmm la mhm. ndax jàmm li sëriñ bi wax rek gisul lu ko gën ci àdduna gisul lu ko gën fa jëm mhm. te nit ki boo amul jàmm maanaam am amoo wér doo mën a jàmm yàlla moom mag ñi nag daan nañ def ci seeni tettal ba ci ci rey tam xarit yii bëri na lu ñuy ci génne di ko biddaawal di ko xeewil te fekk na jubluwaayu mag ña dafa am lu mu doon def mm-hmm. lu doon wane dëkk bi jàmm mm-hmm. ak Sénégal bu dugul tax borom baatin yay ñaan ca baatin waaye mag ñi nga xam ne ñoom la yàlla suñu borom dénkoon yenn xam-xam yi mm-hmm. maanaam ñoom am nañ luñ ci doon joué waaye li nga laaj ni ndax dañoo def lu ñu warta def wala ñu war a loo xam ne ko ñu bàyyi lu ñu war a def ndax maa ngi koy wax léegi rek Yves bi may ñëw maa ngi koy wax ne ko gis nga at mii ñu génn foofu lañ tollon mhm. pour maanaam euh, yëfi daal di kii mhm. maanaam dog-dog daal di am mhm. na bo sété dañoo génn ci atum 1444 at mom atu nooraani yu la jëf yu bon yi ñu doon def yépp ak xërëm yak ka di nax ñaara am moy sayatinul jinni ak sayatinul unas, saytaane bi nga xam ne jinne la ak saytaane bi nga xam nit la ñi naan ko nitu guddii gis nga ñaari manam saytaane yoy yépp manam dañu leena teunkon ci atmalé ndax at ma nooraani la ndax mhm. nee naa la chiffre 1 bi day mhm. nooraani yu mhm. danaa ñëw ci chiffre 1 boobu ndax moo waral tam xarit bii sax ñuy wax ñaari chiffre la 1 ak 9 waaw taasura mooy bisub fukkeel beeg juróom-ñeent moom ci la ñuy lekk cere yi waaw bis bu yéeme la tam moom waaye li muy màgg-màgg dafa amaat beneen bis boo xam ne nag mooy asura mooy bisu fukkeel ba léegi nag boo ci di nga dix boo ci moyen neuf un rek moo ci des suuf chiffre un boobu dafay chiffre boo xam ne nooraani yu la moo tax bëri na ci ay yonant yu baree bëri yoo xam ne yàlla ci leeru yonant bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi googu noonu la ñu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala maanaam ca suba teel ba jant bay waaja a sox jant bay waaja fenk ca lañu ñu sëfe yu mel ni yàlla yunus ca jënam ba ginnaaw ba ko jën ba wanne mu jaaxle lool waaye ci bisu aasuraa ci la ko jën bi daal di yàqi boqi nga gis yonte yàlla yuusufa moom keroog bi mu duggee ci teenam ba ak bi mu duggee ci kasom ba ak yooyu yëpp ci bisu aasuraa muy fukkeel ba jàpp chiffre un ci la génn ci xat-xat yooye nga gis ni yonente yàlla ayooba feebaram ba yonente yàlla ayooba febaram goge nga xamne ay mindeef yu doon genn maanaam ci yaramam mo mhm. febaron lol dem ba ay sax ngeen baal ma ci wax ji da genn ci yaram bi mhm. waye yalla ngi ko safara febar ba baye ko ci bisu manam asura moy bisu fukel ba japp chiffre 1 mhm. ba tay tamit bo gisee yontu yalla yankoba bi mu gumba ci bisu manam asura ci la gis Musa yalla musa ci la xaron bëxru xalsoom labal nonam bu mag bobu fir daal di fay jaar ba wéy noonu nga koy toppee ba ci ay yonant yu bëri ba ci yonant yàlla aadama mm-hmm. ba ci yonant yu bëree bëri bisu asura mm-hmm. leneen sunu borom subhaanahu wa taala nag dafa defalee tawfiix yooyu mm-hmm. parce que xar baax yooyu ñu def yépp nag ak lañ ko am ña ngi ko am ci darajee yonant bi sallallahu alayhi wa moo tax sëriñ bi wa in jaa bil ayaati rusulun taxaddamoo fa naaloo bikal ayaati min zi tafadduli mhm. bu fekkee ni yonante yi la jiitu woon muy cent vingt quatre mille euh, cent vingt quatre mille prophètes yëpp mhm. doon nañu dikki ay kéemaan doon def ay xar mhm. yu yéeme yu leen daa yu waaye sëriñ bi nee na yooye la kéemtaan fa naaloo bikal ayaati ña nga amee yooye la xar baax min zi tafadduli sa daraja yow yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ci daraja yonante bi alayhi wa moom la leen yàlla sunu borom subhaanahu wa taala safare kon bis la bo xamne bisub ñaan la mm-hmm. muy bisub tasura mm-hmm. muy November, ba di chiffre 9 ba mm-hmm. bu ñu xëyee ci chiffre 1 ba yit di chiffre 1 ba di bis bo xamne tamit bisu ñaan la di bis bo xamne tamit bokku na ci nga adat limu limu limu admi, li 1445. 45. mi muy mille nga daal di koy weddi ci ya hafiz ñaan yalla wattu la wattu sa alal wattu say bien yëpp ba nopi tamit Euh, aar la ci say noon aar say njaboot may la nga fekk déwén may la nga fekk déwén dinañ ci wedd tamit yaa razaaxu pour ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu defal la xéewal moom miy wasa galaakoon bi mm-hmm. waaye dinañ ciy wedd tamit euh, yaa salaamu mm-hmm. moom réew mi soxla na ko jàmm ji yaa ñaan jàmm mm-hmm. boo ko defee def yaa fattaaxu wala yàlla latiif ci lim yooyu daal loo ca ñaan rek ca bis ba yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mën na la mën na la mën na la cee defal loolu ndax bisub nangu ñaan la waaye kon chiffre 1 bi. Mhm. at mi ñu génn. 1 mhm. bi day nooraaniyu. 4 bi di nooraaniyu. Mhm. beneen 4 ba di nooraaniyu beneen 4 ba di nooraaniyu. mu jàpp wa isma rabbika fasalla. yàlla da ne woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fàttaliku sa turu borom. waaye na julli moo tax ku la dàqoon a sikkar. turu yàlla. dàq laa def xiyaamul layli moo la dàqoon ñaan yàlla mu nangu. waaye mboolem ñu doon xërëm. doon yëngal bagage yi ndax damay bañ a tooñ mhm. waaye bari na xeet yoo xam ne ku ñu masaana génn waaw chaque at bu jot dañuy génn waaw xam nga at mi nawet bi kilifa dina génn àdduna nangam nangam taw bi dina barke wala waa wala sax maanaam diw na bàyyi diw mhm. wala nangam nangam mhm. bu ñu yaakaar ni loolu dafa neen de neenul woon at baa leen ndax maanaam at boobu dafa contrôle mbooleem mhm. loo xam naa ni loo xam ne ci zulmaan yi la mhm. ci wàllu boobu noonu ndax wa zakara isma rabbika fa salla rek moo doon dox mhm. waaye nag bi ñu génnee ci atum mooy benn fanu tam xarit bi ñu génnee ci atum 1444 ñëw ci 1445 nag ñañ pettoon seen biddéew yi nag seen biddéew dafa jugaat dañoo rattrapé seen biddéew moo tax jamono ji moom ku leen ci tooñ ñu jëmm sa daxaar ñoom seen bopp waaw dañoo ñëwaat d'accord léegi dinañu leen yeboon ma ma dugalaale beneen question bi mm-hmm. parce que umu da ko xaw a junj mm-hmm. te xam naa ne question bi mm-hmm. pour mu gën a leer mooy dafa am ñoo xamante ne dañu toog ñu ne tëggum bool yi falaa jëmoon damaa wiiri rek dangaa doon wiiri damaa doon wiiri rek wiiri bee yaatu ndax Sénégal dafay loo xam ne boo tëbee rek tiire fenn duñu comprendre damaa wiiri commentaire yooyu dafa dafa bëri ci internet bi waaw nañ bàyyi bool yi nañ bàyyi bool falaa doon jëm d'accord fa laa doon jëm mhm. ndax dafa laaj laaj bu am solo mhm. moo tax ma doon ñëw rek mag ñi naan ak tëgg yeeg yooyu noonu daal di ñëwaat waaw li taxoon tam benn benn temps spécial balaa ñu tàggoo comme ça mhm. dimbali ñiy seetaan waa ñiy seetaan ci tam waaye gis nga ba ñu génnee ci atum 1444 ñëw ci atum 1445 léegi chiffre 5 bi ndax boo ciy mooy 9 5 rek moo ciy des 5 nag xawaa iw la xawaa iw mooy ngelaw ngelaw atum ngelaw la moo tax ngelaw bi day bëri te defoon naa ci beneen révélation mhm. invité woon nga ma ci sa site mhm. ñu waxtaanoon ca ba may mhm. tëj émission ba maa ngi ko doon wax te booba yii yëpp xewagul ma ni leen nag nañu def attention tey sàkku sarax te xam ni nag at ma ñu doon ragal at ma jàll tubaarkàlla waaye at mii nag na ñëpp def nañu prudent te def attention ndax dafa bëri ñoo xam ne dañoo pettoon dañ leen a tënkoon te dañ leen a tënki te it maanaam chiffre cinq boobu jàpp xawaa iyu xam nga ngelaw moom du arrière. day avancé rek. moo tax nit ki nga xam ne tabixaam sax xawaa iyu la chiffre cinq. Mhm. waxam day xaw a xamadi. Mhm. ci wax. te du ko te it maanaam lu mu xas a jàpp du bàyyi. Mhm. xanaa ñu nekk Europe seen seen chiffre cinq la. waaw ñuy live chaque jour. <laughs> waaw waaw waaw bëri na ci gaa yooyu dinaa ñëw ci ñoom. dinaa ñëw ci ñoom ñu maytu bu baax a baax a baax. waaw ndax euh, paaka bu ñëw boo koy laal. boo ko laalee ba mu dagg la. Yves daggu la yaa dagg sa bopp te nitu yàlla yi ay paaka lañ seen biir ba mm-hmm. Mm-hmm. wallaay dëgg la te paaka bu ñëw mm-hmm. boo ko laalee ñoom nag ay jàmm lañ paaka lañ bu tëdd boo ko laalee daal ba mu dagg la yaa dagg sa bopp waaye gis nga maanaam xawaa iw boobu di mu am rek sobi faw mu bëri est boo xoolee jéyee yi ndax ngelaw fu mu am feebar day bëri waaye ngelaw day bëri ngelaw fu mu bëri nag soog dana fa bëri. Mhm. tey jii rek dinañu président. Mhm. tey jii rek. waaw mhm. ndax tey jii rek. am na ñaar fukki ak juróom décédé. waaw ci yoonu Louga bi. ak ay blessé ak ay blessé am na ci ay mbokk yàlla yër. dañoo annoncé ne 22 moo dee. sur le coup sur le sang. ca saasa. waaye nag ñu dem kenn ka bañ ko yóbbee hôpital mu daal di faatu. ñu ne 23 morts. ñëpp affiché ko te xam nga 23 moom. mooy 2 plus 3. 5 la mooy ngelaw. di nga batay 5 ñëwaat na mm-hmm. ah nga gis ni maanaam chiffre 5 bi ci bopam mo doy waat mm-hmm. ba noppi tamit ñuy jongante 5e président mm-hmm. 5 tamit ta 5 yombul na 5 li tax yombul moy gis nga asaman jurom ñaar la suuf jurom ñaar la boko bolé du 14 14 5 bi di mooy 9 5 day di 4 plus 4 la 5 bi di 4 motax gis nga batay continent yi 5 continent la maanaam euh, yëg-yëg yi doomu aadama war a yëg li mhm. ci bët mhm. ci bakkan yi mhm. ci gémmiñ gi ci nopp yi ak li muy làmb ñu naan ko cinq sens noonu lañ koy wax léeg-léeg ñu ne sixième sens ba ñëw na waaw léegi nag cinq sens yooyu nag doomu aadama am muy secret baatin loolu moo tax gis nga chiffre cinq mooy chiffre kamal ji nga doomu aadama pour mu mat sax faw mu sax maanaam 32 waaw trent lan 3 ak 2 5 cinq damit dikkaat na moo tax chiffre kamal la mhm. moo tax boo déggee ñu ne as-saalih allazi mhm. yukammilul amal ndax moo doon cinquième xalifa mhm. chiffre cinq ki ko war a donn dafa war a am ay maanaam critères yu ne ci moom du du doon nit koo xam ne nitu nitu simple la nitu simple la waaw te it maanaam gis nga laata ki koy war a doon doon cinquième président kaw carte gi dana jaxasoo lool parce que li ko waral léeg-léeg li nga naan yuuxu dina jëpp ñu ko foogeewul mhm. mhm. dina bëri ñu ñu joxoñ ba mu yàgg ñu yaakaar ni moom la fekk na lu mhm. doon ñoom dëgg la mm-hmm. doon ñoom léegi nag boo seetee it nga gis ni tëggum bool yi nga xam ne ñu ngi koy def dafa jigul sax président Ousmane ko moom ci boppam waaw ah, parce que joolaa la joolaa la man sama soxna joolaa la man xam naa bu baax ndax def naa Casamance. Mhm. li tàmbalee ñu ngi may seetaan waa Bukar Signa. Mhm. Ndeema Kajoor Supo Papaya ñooñ ñëpp macha mhm. allah. ndax maa ngi dëkkoon place de Gaaw. jàkkaarloo kër Abdoulaye Balde. <laughs> kër yaayam yaakaar na. waaw ñu ngi koy nuyu moom Abdoulaye Balde. xam naa Casamance. xam naa culture Joola. bañ na ko ba sax cin dañuy bañ maanaam nga nga téye cin. romb. manam goor goor yalla wa waaw mhm. goor mhm. wala nga diri ko wala yu mel non mhm. ta lolu mom njëkk president Ousmane Sonko joolaa lolu loolu rek da koy njëkk sax tojal dafa am yenn yo xamne inspiration yim ci jëlone manam xamna lam ci mu ca jublu woon mooy roy tuba bi buñu ñu masaane dañ koy ki lolu rek la ci jublu won wa lolu rek la ci jublu won ñu jël ko nak ayel ko wax lu ne ñu jël ko ayel ko legi na day muju nak ayel ba bu moytuwul nit ñi dañuy am deug ci kawam tombee waral ay gaf wa tombee waral ay gaf nak dama koy faral di wax ndax jàng na alxuraanul karim waaye mu dal ci sootu am ku ko jàngaloo ne ko jàngal sootu këx fi bi mu jàngee sootu këx fi la dama daal daal dal sama gémmiñ ndax dama xam sootul këx fi saar ba la muy wax saar ba la muy wax ndax li waral loolu mhm. mooy dafa am ñoo xam ne dañoo nekkoon ay jaamukatu yàlla ñi tax yàlla tuddee saar bi saaru xuntu xuntu mooy këx këx bi mhm. Mhm. dañoo nekkoon jaamukatu yàlla ñu daal di xat ci dëkk ba ñu nekkoon ngir mooy yàlla gaak Eh, bokkaale ga ñu dem nag isolé wu pour maanaam ñoŋal seen diine léegi ñu daal di dem ba dugg ci benn xuntu daal di fay nelaw nelaw fa trois cent neuf ans mel na ku nelaw dix heures yow onze heures hmm. wala bi soo fii kaf bi xim salaasa mi ati siniina was daa doo tisxan hmm. yàlla nee ñu daal di fay nelaw maanaam trois cent neuf ans hmm. waaye mel na ku nelaw neuf heures rek yow dix heures waaye nag ba ñuy nelaw dañoo nelawaale woon benn peesu xaalis mm-hmm. léegi nag xam nga boo yeewoo trois cent neuf ans waaye yàlla nag ci mm-hmm. xarañam mm-hmm. moo tax fa yàllay fexe yàqkat yeggu fa woykat ba dana pexeb yàlla moo gën pexeb nit naxam fa yàllay fexe yàqkat yeggu fa fa fexe raw na bët te raw na xel fa muy yokkee nitam ay bañam xandu fa mu ne lu nit rëy rëy cër du yóbbaale cërub nit ku bëggit ba fa Mhm. te bu yàlla nammee dara ci jaamam du diisoo da ngay xëy gis ko fa waaye nag léeg-léeg zaata yamine aw zaata simal léeg mhm. bu ñu tëddee nii ay ati at mhm. laloo seen loxo ndeyjoor yàlla day yebal naa Jibril mu ñëw wëlbati leen ndax doomu aadama yàlla da koo bindaalee benn matière boo xam ne bu tëddee bu yàgg at yooyu rek day bañ ñu yàqu moo tax nag mu wëlbati leen bu ñu tëddee nii ba mu yàgg mu ñëwaat ay quelques années mu wëlbatiwaat ko pour ñu bañ a yàqu mais bi ay ñoom marnoosin dabar noosin saza noosin xam nga yàlla dafay wax ci alquran ne nee nañu ñett lan ak seen xaj ba muy ñeent mhm. nee nañu ñeent la ak seen xaj ba muy juróom mhm. nee nañu juróom la seen xaj ba muy juróom nee nañu juróom ñaar lan ak seen xaj ba muy juróom ñett mhm. mag ñi nag nga xam ne waruñoo jéggaani dara daal dinañ ñun juróom ñeent juróom ñaar yi yàlla mujjee wax ak seen xaj ba mooy li wér mag ñi yemuñu si wax ñuy sax ni loolu mooy li wér ne set lañ woon ak seen xaj ba muy wit waaye nag maanaam dañoo dem sax wax ñu seeni tur na boo demee ci wasilatu rubo sëriñ bi andi na ko fa mm-hmm. ñoom marnoosin dabarnoosin chajanoosin ba ci ak kafastad yoosin miirin mm-hmm. mooy seen xaj bi leen doon gàdde mm-hmm. gis nga xidmiirin boobu boo ko bindoon six cent def ko nobba rek benn gaw takk ko waxuma la sax maanaam tul nga fital du la dugg jaasi du la dugg waaye nit sax bu la bet xaj ci loxoom mhm. loxo ba du jóg mhm. loolu waa gendar xam nañ ko li may wax dëgg la mool ndax moom dañuy wax ne sëñ maam Cheikh moom bul laal mhm. mool ponkal goo mën a doon ba ñuy waxantee rek tey boo yëkkatee sa loxo sa loxo du jóg dëgg la am na ñoo xam doo yëkkati loxo di Yves moo tax mu ñëwee dañuy def nii xanaa mooy tabaski bi paase li li li imam bi moom la takkoon xanaa. mën naa ne coow li mooy xidmiirin daal. Mhm. waaw dafa mel ne yooyu yëpp bagage. waaw parce que paaka bi mhm. soo xoolee paaka bi ba ba léegi kenn xam ko lem. mais dafa lem waaw parce que man man taxaw naa ma dafa am nit ñoo xam ne kenn du xàcc jëm ci ñoom. ndax yamunu ca yàlla. Mmh. Mmh. parce que maam Cheikh. Mmh. dañuy faral di wax ni ñëpp a ci yàlla déedéet. yamunu ca yàlla de. parce que soo ko xoolee misaalu juróomi baaraam yi rek. xam ne ñi ñëpp yamunu ca yàlla. am na ñoo xam ne kenn du leen xool. ba yéene leen safaan. am na loo xam ne loo leen yéene. mu dellu ci yow. macha allah day am ci ay nit. léegi nga gis ni comme dëggalal la loolu nga wax xit miirin boobu moo doon xaj bi leen doon gàdde moo tax boo ko taqee moo lay gàdde ci barkeb tur ba hmm. day def jeexintal hmm. daanaa ko jox sax maanaam jamono ji nga xam ne mëntoon a ñàkk hmm. ndax sàmm du seexlu gétt dëgg la moo tax xale yi bu ñu doon def nawetaan daa ñëw ci man du ma leen xeebal seen nawetaan ndax bëgg naa bu may def jàng ñoom ñu ñëw waaw waaw noonu ngay def sàmm du seexlu gétt waaye bu ñu masaan a ñëw nag soxla ma ma leen di ñaanal ci seen ASC góol bi dama ko daa jox maanaam xidmiirin six cent defal ko ko ndomba bal ko ko romb dugg ci camp yi. Hmm. day tëj camp yi. Hmm. mu nekk nag tul bu doy waar boo xam ne la pour xamal ne leen xaj bi leen doon gàdde hmm. xet miirin la tudd. Ah, xanaa moom jëmmi xet miir boobu. kon kon kon xaj léeg leen ma dégg ñu naan. Euh, ay baaxul baaxul ci kër ak. ak am kóllëre. te loolu mooy. Euh, wax yi nga xam ne koy faral dégg. waxu olof la la ñuy wax. ndax boo demee ci jës bul murit sëriñ bi mi ngi naan. xaj topp na. ay gaa yu baax ba dem aljana. ndeem xaj moo topp gaay yu baax nag ba dem aljana sàkkaa nag ñun ñii di nit mhm. war nañoo mën a topp nitu yàlla ba dem aljana lan moo tax muus amul kóllëre mhm. waaw muus de moom xam nga mhm. sifaatoom waaw mala bu nekk am na sifaatu boppam loolu dinaa ci ñëw beneen émission boo xam ne buñ ci ñëwee danaa leen indil maanaam ndax loolu yëpp ca gaalu yonti yàlla nu d'accord muy gaal gi teeroo balaa muy continuer foofu pour leer la mbirum tëggum bool yi tëggum bool yi waaw. maanaam sabar bu njëkk ba. Mhm. bu nawet daan jub si. Mhm. dañ naan aj leen sabar leen sabar yi. Mhm. bàyyi leen po mi ñaan leen yàlla mu taw. mais boo xoolee ñu ndakaar balaa muy taw di dañu sonn. te bu tawee taw bi du bëri. benn taw ñaari taw yu dëgg ñett ñu ne nawet bi. ñu léegi nag moo tax commentaire yi xam naa loolu lañ jàpp ne kon extra bool yeeg casserole yi moo tax tëgg mi. Euh, téye taw bi waaw tëgg wañ sax ci boppam moo doy waar. gis nga liñ ciy xam lépp ci yëf yi. ci mhm. procès procès Ousmane président Ousmane Sonko. Mhm. mbirum tëggu boole ñemewuñu ko wax. ndax Sénégal dafa dem ba nga xam ne boo ragalee commentaire yi. Mhm. ragal yëf yi doo wax. ndax coow li moom mooy. dafa dem ba tollu fenn foo xam ne ni daal. Euh, diw lu mu def baax na. maanaam maanaam dafa am sax ñenn ñoo xam ne ñëwoon naa ci sootul. këx fi bi. biñ ko ko jàngale jàngale moom lu mu soxla. mooy livre. Mm-hmm. kon doo doo ko jàngaloo loo xam ne da koy tënk. Mm-hmm. macha allah ndax ñooñu dañoo yàggoon ci seen néeg ba. Mm-hmm. tëggu bool yi tamit benn ci moom sax la njëkk a bon. yaa ngi koy kaka jàngaloo sootu kax fi biir. am na yeneen saar yu mu ko waroon a jàngale. mais dafa jékki-jékki ci lisaanu xaal na ko jàngal sootu kax fi. bi mu ko waxee nag ku ne xam na ni euh, maakisiina fiihi abadan. am na luñ ciy def loo xam ne boo ko defee jigéen ba. def ci turam wala góor mm-hmm. def ko ci suufu rondal bi mm-hmm. du fa jóg mukk walay sëy ba sëy fa parce que da koy dopt ci biir kër ga ah loolu baax na ndax loolu moom ñëw loolu moom xam-xam la ah. dina dina bokk ci li ñuy ah, waxtaanee ci ñaareelu pàcc émission bi ndax ba léegi ñu ngi nekk ci euh, réew mi uh-huh. ni muy doxeek li waral yenn jafe-jafe yeeg at mi aussi li ci xew accident yeeg yooyu noonu. bu mhm. mu am na leen lu mu bëggoon dugal sànq. waa li ma bëggoon a kii rek mhm. nga baal ma ma arriéraat. parce mhm. que dafa am loo wax. dafa am solo mooy yonent yàlla bi jën bi wan noonu. waaw donc dama dégg ci ay kàddu. ñu ne dafa ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin mu yàbbi ko. ndax loolu la wax wala ñaata fan la am ci biiru jën bi. waaw xam nga am nañu wax ni 40 jours. Mm-hmm. ñii na quarante et mm-hmm. maanaam ci ay bis dafa am mm-hmm. ci biir jën wa waaye it bi mu koy wax aaya bu barkel boobu est-ce que yàlla sunu ba subhaanahu wa taala da ko wuyu parce que rek dafa reconnaître boppam ne yow yàlla kat damaa tooñ maa ngi tudd sa màgg bi yow mi nga xam ne man sa jaam bii kat tooñ naa la maa ngi lay jéggalu te di la ñaan hmm. yalla sunu borom subhanahu wa taala defal ko jeen bi goxi ko inshallah waye gis nga aya bobu noonu boko waxe waxee la mat hmm. su fekke ni deg nga ñu jek jek wal khiyazu billah nga jek jek rek ñu tok mam Cheikh ñu na la mam Cheikh diw day mi nga xamone de dañ ko japp prison hmm. nga tok fa nga tok def ko ñaar nga def ko nga def ko 41 jours li tax ma xam 41 la soko defé 41 rek léegi nga déggaat même information ñu ne mujj nañ ko bàyyi mm-hmm. jotuñu koy jàllale mm-hmm. bu nekkee ci kaso yi nga liggéeyal ko ko day génn mm-hmm. waaye fu mu duggee rek sa nopp ca sa nga defal ko ko maanaam 41 kooku léegi ñu woowaat la téléphone wala nga dégg ay xibaaram ne génn na kon nga gis ni maanaam laaj nga question bu am solo macha allah moom la ma ko foofu rek waaw dañ fi dégg sëriñ toog ci télévision comme ni nga toogee di waxtaan nii mu ne am na ndomb boo xamante ne kuñ ko takkal doo dugg prison moom ñu xëy dugal ko <laughs> prison. ba après dañ ko mujj may liberté provisoire. waaw loolu si dañ koy faral dégg yow. li ngay mhm. defal nit ñi. bu mhm. ñu bañ a dugg prison est que doo ko defal sa bopp ba pare. Mhm. balaa ngay dem prison. waaw laaj nga laaj bu am solo. ndax coow li nag mooy nit ki mën naa yëkkati ñaan di ko jox nit. te fekk na boppam da koo da koo jege bu fekkoon ne am na. moo tax ñu ne sëriñ dafay war a kaane boppam. dëgg la boo nekkee sëriñ it. bu rëy dem ci sëñ maam Cheikh it ne ko ah diw. nit xefam da koo jege. Mhm. ba mënu koo gis. dëgg la jege kiiraay la. waaye yéenam tamit jege ko. Mhm. ba mënu koo gis jege kiiraay la. Mhm. naan saabu. mënta fóot boppam moo tax dafa waroon a yëkkati ndax booy defal sa bopp yéene gi nga cay àndal mhm. ak sa njaboot moo tax léeg nga gis sëriñ buy faj mhm. dana am doom bu wéradi mhm. boo seetee ci ñi si fooroon ci wàllu ñaanit da ngay wax waaw da ngay faw ñu am doom bu leen yàlla nattoo boo xam ne du mën ci ñoom dara loolu dafay fekk nag loo xam ne ndomba ya mën naa baax ndax ay téeméeri nit mën nañ koo témoin ne baax na waaye coow li nag mooy dafay am leen loo xam ne lu ne fi nit ne nag njëkkam dafay nekk xalaaxa boo xam ne mhm. day bokk sa tabixa prison mhm. comme bi ñu ma laajee décision justice bi mhm. ci président Ousmane Sonko ne ma nax laata procès bi ñuy xaar de libéré bi décision justice bi defoon naa ci benn misaan boo xam ne biñ ma ko waxee dama ne ah foofu dafa sensible ndax boo ko waxee day dana am ñu mere waaye nag man du ma nekk koo xam ne damay taxaw rek wax ni ah boo moytu dana dugg prison mhm. déedéet kenn du waxee noonu mhm. da nga leen di wax misaanal leen mhm. ñoom ñu xam ne yow parparloo woo waaye yenu na maana nga jàllale li nga bëgg a jàllale waaye boo seetee dama ne leen nañu introsé si jini ba xam nu mu def ak président Ousmane Sonko xam nga baatinu président Ousmane Sonko génneel naa leen ko ba muy douze douze mooy chiffre mystique am mooy chiffre mystique gu gaynde mooy chiffre mystique gu géej muy baxaru mooy chiffre mystique yi ba tey gaal moo tax am na fu ma waxoon ni bu yoroon réewu senegal ni gaal di dawee ni gaal ni muy dawee ci géej mhm. ni muy yombee ci moom mhm. ni muy neexee ci moom noonu lay mel ci moom mhm. ah. bu ko yoree mais dafa ma daal dina leen nag chiffre mystigam tamit douze la gaynde douze la Sénégal douze la maanaam boo ko addadee képp koo xam ne dugg nga sama sama compte TikTok it Ibra Fall Fall mhm. da nga cay gis ne def naa ko misaan naa ko indi ko nu muy def ba muy douze moo tax ñu ne waaw mi ngi noonu gis nga secret secret bii muy wax mhm. benn bambara moo ma ko mhm. xoon mooy année deux mille deux te mi ngi ma ko waxee ci man ak Tike Ndiafakoli mi ngi na ko waxee Kank Moussa mu ni ma équipe nationale mu ni ma chiffre am douze la a a ma ne ko ah avant mun waa ma ne ko sama xel dem ci douzième gaynde mhm. mu ni ma dina jëli coupe nag mu wax ma ko France ci kanam Tické Ndiaye mu ni ma dina jëli coupe mhm. coupe d'Afrique mais dootul du jamono yi mhm. il faut ay ati at douze ans ci kanam encore waaw macha yoo xam ne waaw parce que chiffre douze la léegi nga gis ni ma daal di jël chiffre douze boobu nag moom ngay interroge interroge sijjini mooy mooy kaso mooy prison léegi sijjini nag seen seen bu waw la seen su waw ak jiim ak nuun siin su wow ku ne xam na ne trois cent la mhm. léegi jiim nag di trois mhm. waaye nun cinquante la léegi boo ko boolee muy trois cent cinquante trois mhm. léegi nag boo ci plisee douze lu mu lay jox trois cent soixante cinq bis yi ñaata la trois cent soixante cinq trois cent cinq jours lay doon mooy at mi waaw léegi nag boo xoolee tamit doomu aadama ñaata sidit la am trois cent soixante cinq sidit waaw mhm. doomu adama looloo tax ma jommaloon wa gendar si ñaanu gaal ba mhm. koo xam ne sax bëgg nga ba sama gaal ga jàppoon jën bu bëri ba toonoon jàpp ci ñeenti gaal mhm. ndax booba tamit gaal boo xam ne kaaya nga rek dañ naan la noo def ak sëñ maam Cheikh dama nga seeti ko parce que li ko waral loolu mooy samaka mooy jën boo ko addadee dafa lay jox 365 léegi nag mooy jën léegi nag doomu aadama bi yor 365 sidit di dox ci 365 jours di wut samaka muy mhm. 365 léegi nag daa war a tawasul ci allahu rahman mooy 365 mooy jàpp jën parce que allahu 66 la mhm. rahman di 299 boo ko boolee muy 365 jours muy 365 léegi nag boo jëlee nag basmala muy bismillahi rahmani rahim bind ko 365 li mu samaka nga jox ko mu takk ko ci mi nga bindalaat ko beneen jox ko mu takk takk ko ci gaalu mbaal bi mm-hmm. bindalaat ko ci beneen jox ko mu takk ci gaalu topp bi mm-hmm. gis nga bu sànnee mbaal mi jën yi ci boppam ñooy bëgg faw dañ koy wuy si parce que ñooy bëgg waaw moo koy bëgg parce que allahu mm-hmm. ndax bisimilahi rahmaani kon daal gaal doo dem nii rek di sànni sa mbaal yi ah, déedéet Yves man sa am na loo duggee neen génn cee neen dem balaa bët a set ñu ñëw teer seen ñaari gaal ñaar ñaari gaal yi ba noppi mu jàpp fa ngal-ngalu sedd loo xam ne dañ ne lii c'est impossible sedd bu bu seddee nii mu jàpp ci gaal ba mu feesee nii lii moom mësuñu ko gis mag ñu weex ba jaaw ne lii miracle la mësuñu koo gis sama gaal gi nga xam ne tamit jàppoon na fa toonoon maa ngi ziar imam Ray Saab di sama wóllale ñoom bokk nañ ci ñi ma indi woon ci parti Pondoxoole ma yor ko sept ans yoo xam ne kenn mënuñu gañe waa parti ba biñ ma woowee nag na ma yow nekkatoo maam seexu looda doo Mm-hmm. maam seexu ñëpp nga mm-hmm. bët bu rusul toj ma bàyyi édition 2019 mm-hmm. coupe baa nga sama kër gis nga ko waaye nag man mii la benn waaye doon wax naan bi ma demee ndar damaa laaj sëriñ sa doon damm gaal yi ñu wan ma ay gaalam ma damm ko damay bañ tudd turam waaye si woon na ci jamono yi jamono yi jamono yi coupe du monde bi loolu yëngalal ñu ceex yi moom sëriñ ba mu doon wax naan sëriñ bi doon damm gaal yi moom nag na mu ko waxee ak na mu demee bokkul parce que li ko waral mooy man dama don doon gal gaal ya dama don wàcc devant public ñëpp di ma ci kaw étage ba bu ñu sama gal gi jitu ko ñu mhm. def suñ maam Cheikh boo maytuwul rek gal gi ki dama daal di wàcc benn baat bu gàtt mhm. laa bind ci suuf wa jënd rek may setan ci mhm. bu suuf si ëf ci tudd ci turu gal gi daal koy ni mu ma tek sama tangki ci escalier yi nit ñi yuuxaloo ah lo da <laughs> ba diig na ba mujj gi nag ñu tegaat ci benen rawante bo maanaam de troisième eh, course bi mooy bu mag bi. Mhm. gaalu dàq bi dafa daw tuuti rek daal di dem moom it diig. bi mhm. ngay damm gaal yi xamoon que booba dañoo damay taxaw ci kaw étage bi. Mhm. xam nga rek ndaw laa. booba jamono yooyu yooyu moom defatuma ko ndax damay rees sax sama bopp. damay taxaw ci kaw étage ba. un seul sëriñ boo xam ne du ma joxe ay nit. yoo xam ne pour ñu dem def benn affaire. bu ndam amee ma ñëw ne leen man la. su fekkee ndam amul rek ma yolleeku daw mhm. man damay yëg ci kaw étage ba ñëpp di ñëw nag mhm. sëñ Ponda maam Cheikh nga ne la léegi nag lu neex yenn parti yi mhm. déedéet moo ma jaaxal gendan ñu nu bari histoire tàmbali tàmbali nag waaye ñu baax leen ñu waa di ñu baax a baax a baax waaye nag di ñu baax ñoo xam ne ñoom ñoom injustice ak ku leen tooñ lañ bañ waaye boo dëkkee seen biir yor lu leer yor fa nanga day am ñu ne ma mbër nga man leen waa yor lu leer rek yem fa ma war a yem macha allah ndax ñoom coow léegi nag bi yàlla sunu borom dogalee nag maanaam bu ma ko bu ñu masaan a wax ay kaddu yi. Mhm. daal di xaw a sànni xeer. Mhm. rek maanaam xol bi daal di xaw a xaw xaw a jóg. Mhm. léegi bu ko defee damay mer ne leen nag comme ci kaw ñu déggante damay xam ne ñu ngi saaga. ma it dama leen di wax ne leen danaa mooy danaa leen suux. damm seen gaal suux leen année boobu noonu la demee. macha allah moo tax léegi bu may dox nag jiitu leen. nag ñu am ñu mën a respecté doomu aadama lañ ñu ma cëral lañ ñu ma Bama Bama jall suma wone ginnaw na da nga gis kenn ki ne moram bi ni dal na ko ni wa jox wax ko gay dal hmm. sa waaye ngi ni mo nu xagn sunu ko dam ma sunu gaal su ko wa waaye nak di ñu bax maa ngi leen di nuyu wa gendar mo na teral nit laa mu dem gendar wa gendar ñu baax ñu teralal mako lol la bëgg ñu baax ngi eh, ay liggéey kat tak lañ man sama mam sama mam ma nga Saint Louis president nañ leen defal beul bi ta nañu hmm. gëna joxat maanaam licence de pêche yi. te bàyyi xel waa Guet Ndar. ndax maanaam pêche bi rek li muy dugal maanaam ci économie Sénégal kenn xamu nu mu toll. Mm-hmm. Mm-hmm. te ñoom marsuñu mm-hmm. liggéey rek lañu leen xamee mooy daal nañ leen gën a bàyyi xel. licence de pêche yeeg bato yeeg yooyu yëpp. ñu gën see bàyyi xel. macha allah balaa moo jàll foofu mm-hmm. Mm-hmm. xam nga dañuy am ñaari xeet. Mm-hmm. bu fekkee ci pulaar ci ballo la ñuy wax. bu fekkee ci olof ñu ne lébu yi. donc bu fekkee ci côté pulaar ci ballo yi ñoom dañu daan jat jasit. ba génne ko waaw. ba génnee ko. Euh, mu taxaw. waa donc après boo ñu mënee wax ci secret yooyu. aussi noo def ak xeex bi amoon ndar ak kayaar. problème bi amoon foofu. Mhm. lan nga ñu ci mën a expliqué waa xam nga problème bi ñu ngi nuyu waa Kayar tamit di mhm. nuyu waa Guet Ndar. Mhm. li koy sabab nag mooy règlement de compte la lu yàgg la woon waaye li ñu naan ay moom. bañ ak bañ morom. ñoo ñoo bañ ak làmmiñ ñoo dëkk. waaye léeg ñu laalante waaye nag ñoom dañoo dëkkoo ba jaxasoo woon maanaam dëkkandoo woon ay dëkk yu yàgg ay doomi Kayar di dem Guet Ndar di fa. liggéeyee mhm. te kenn du leen ne kayaar kayaar yi mhm. ñoom i tamit ñuy jógee gendar di ñëw kayaar di fa liggéey mhm. waaye doomi gendar ku ko xam xam ni liggéey rek maanaam moom la xam moom macha allah yàlla moo leen defal don boo xam ne ci wàllu napp moom ñoo nekk meilleur pêcheur du monde ñooy ñi dàq napp waaye man mi nekk ci ñoom xam nañ ne amuñu yenn jafe-jafe li waaye lu xewoon nag du ñu jox maanaam cause bi ne waa kayaar la waaye da gis ni événement naar yi sax boo seetee mbir mi lu ko sooke woon mm. ba ñuy ba rey nit ñi di rey ay fii nii ay mm-hmm. waa Mauritanie di fa rey ay sénégalais mm-hmm. xeex ba ma nga amee woon fii ci àll Fuuta bi mm-hmm. te ñaar ñi jàppante woon sax ñaar ñaari nit ñu ñuul lañ ñuul ñoo xeex ba dugg ba ni mu lawee ba àgg foo xam ne tombeek tamit président ba fa nekkoon ñu ko doon bëgg a coup de coup loolu daal moo mujj daal nekk loo xam ne lu explosé yooyu lay doon waaye nag euh, li ko sabab daal mooy lu waroon a am te am waaye ñoom nag bokk na ci ay gendarien yoo xam ne mm-hmm. genn wàllu gendar lañ genn wàllu kayaar waa waaw ah, kon diggante boobu daal ñu ngi leen di mm-hmm. gën a wax ne nag maanaam seytaane ak waa mboora it mm-hmm. maanaam la leen boole mooy waa gën na xóot daal te ñoo bokk benn kii ñoo bokk teen ñooy laxasoo ay goj muy géej gi am na solo ah, eh, bëggoon naa tam ñu ñëw ci actualité ah. balaa ñu ñëw ci mbirum ñaan yi eh, am na ñoo xam ñu ngi signalé wu naan dañoo bëgg jëkkër yëpp dañ ko waxtaane man sama téléphone baa ngi toj dañoo bëgg jëkkër ah am na keneen kuy commenté mu naan li mu làmb yëpp sax waxu ko. Mhm. da génne affaire yi. Mhm. waaw ah, parce que day laaxatu. <laughs> ma ne ko fii moom guddi kenn du fi ñëw di fi laaxatu ndax lépp dañ lay laaj. bëggoon naa ñu ñëw ci mbirum Juan Branco. waaw ndax da nga cee defoon benn sortie. <laughs> waaw eh, doon ci wax ci diggante moom ak kii du Sonko en tant que avocat. Mhm. waaye ca plainte ba nga xamante ne eh, déposé woon na ko foofu ca CPI. muy cour pénale internationale. te nga waxtaanoon ci waxtaan bu am solo. ci say vidéo. nga ne mhm. day sonal boppam rek waaye du ci am ndam mhm. fan nga tegoon loolu parce que après loolu déggaatuñu benn benn suite boo xamante ne am na ci fan nga tegoon ne kii plante bi muy def nii du ci am ndam waaw fi ma ko tegoon rek mooy mhm. dama leen a misaanal génne misaan misaan bi na boo bindee CPI boo ko addee daf lay jox mille trente cinq mille trente cinq nag mooy dix plus trente cinq mooy quarante cinq quarante cinq nag mooy quatre plus cinq hmm? lu mu lay jox neuf rek la lay jox hmm. te président Macky Sall neuf la hmm. chiffre neuf mooy chiffre am moo tax boo wàccee foofu noonu CPI rek day delluwaat ci président Macky Sall ngay xam ne kon faveur bi président Macky Sall la noonu la ñuy léegi nag Juan Branco daal di euh, maanaam defoon tamit dossier bi maanaam euh, mooy 170 4000 4500. waay 4500. léegi nag cent mooy cinq ba tey na boo dindi zéro yi. Mm-hmm. léegi cinq tamit mooy. mooy 9 rek. Mm-hmm. président Macky Sall tamit fattaat foofu. Mm-hmm. léegi nag cent 170 page la ko defoon. maanaam dossier bi mu. jébba jébbaloon CPI 170 moom 1 plus 7 la rek. mooy 8. te 8 day nekk cat ci président Ousmane Sonko. ndax mooy Adji Sarr. Adji Sarr rek bit la mm-hmm. boo xoolee tamit ñaari 49 lu muy lu mu lay jox 49 plus 49 49 mm-hmm. ans 49 jours mm-hmm. boo ko boolee mu jox la 98 98 boo mooyee 9 huit rek moo ciy des mën ngeen koy moyen neuf dañuy yor seen calcul di calculer léegi chiffre huit boobu ko toppee woon mboora delluwaat ko toppeewaat mboora rek ndax chiffre huit moom dafa mës a nekk cat ci moom léegi nag da gis ni huit moo ci des huit bi cat lay doon ci président Ousmane Sonko te Juan Branco mooy mooy mooy président Ousmane Sonko rek. Mhm. ndax moom mooy moom mooy mooy avocat am. Mhm. léegi nga gisaat ni mu plainte cent douze sénégalais. Mhm. cent douze sénégalais nag cent douze mooy un plus douze treize. treize moom mooy un plus trois. loolu lay jox quatre. quatrième président bi mooy président. Macky Sall Macky Sall. kon gis nga fépp rek foo dàq rek foo dem rek. day delluwaat ci président Macky Sall moo taxoon nag décision bi mu ko defee mm-hmm. mooy jour bi muy doog a bees ñëpp naan Juan Branco CPI CPI mm-hmm. mm-hmm. ma misaanal leen ko bi ma ba sànni ko ci internet ne ma ah sëñ bi doo seetaat sa propos yi yow kat xanaa xamoo ni booy eh, Juan Branco mii nga xam ne sëñ bi njaago tubaab la nangam nangam dafa fort waa décision waa CPI ak nangam ak nangam man leen du mujj fenn parce que li ko waral nag bi ma leen misaanele xam naa fa mu mujj mooy gis nga fi mu mujj Euh, mandat d'arrêt international. Mhm. mujjanteel bi yi ci xew xew. ca waaw waa France plainte koog yooyu mhm. yëpp. Mhm. vidéo bi nag mi ngi nii. mu ngi nii daanaka moom laa defoon sax faar mi ngi nii sama portable bi ma ko defee mooy bi muy doog a bees rek bees rek ñu décision bi kii bi mise en bi daf lay xamal loo xam ne du neex a dégg ci tàmbali bi loo ko weddi weddi loo yëngu-yëngu yaay dal rek xam ni kat baatin ak buti tayam bu génnee jàmm xewul D'accord. Il y a wax ci mbirum Chat, Ousmane Sonko y kenn message. Mhm. xam ci patriote la mhm. eh, mhm. eh, ci mbirum Ousmane Sonko. avenir barricade décision deux ans de prison ferme mais ba léegi nit ñi seen xel jiixi ndax dana bok, wala du ma gis si mbiram muy prison. Mhm. damaa gisagul lu ko dindi. Mhm. am na ñu ne ma barricade bi ma ne barricade bi dama ne la woon tam mun yow man 49 jours laa leen waxoon. Mhm. kon da ngay xam maanaam jubluwaay yi ñi ba. moo tax bokk ci coow li xam li xew. bu ngeen ci sama vidéo yëpp. da ngeen di gis yàgg naa wax ni kii xam naa ñu naan waa ji fi bi daal du ñu comprendre. naa ni 49 jours moom te booba 3 jours la fa am xaw ma 2 jours di door a bees. waa imporo ñëw fa. ma daal di def ak ñoom benn révélation wax ko fa. Mhm. maa ngi nuyu sëñ Medoune. ak dégg sunu xar Medoune Diouf waa di ko baax. Mhm. léegi nag ma daal di koy wax. Mhm. ne leen nag maanaam benn quarante neuf euh, quarante neuf jours yi kon bi mu jàllee rek damay daal di xam ni li ci desaat. boo moytu dañ koy bàyyi ndax lool dafa bokk ci tabixa. noonu quarante neuf jours yi ko doon wax bokkee ci tabixaam noonu la sijjini nit bu ñu naxante. donte nag diis na lool. waaye nag nañu wax rek li fi ne. sijjini dafa bokk muy prison ci xalaa xam. maanaam fa mu nekk fa mu doo am li mu bëgg. bu bu duggoon prison maam day tàkk tàkk boo xam ne day mel ni président Ablaye Wade rek. Hmm? dafa am ñoo xam ne dañoo bokk yonent yàlla Yuusufa biddéew dañu am bayre lool. Hmm. waaye pour ñu mucc ci kaso. Hmm. ah ka jafe ana ñu ko doon wax ku ko laal laal laal laal laal keeg. nangam nee naa li ma yàlla won sax maanaam ci wàllu barikaat bi li ko levé. bu ko wanoon sax ay soppeem ñoom ñooy jëlaat barikaat bi delloo ko fa. Ah, mm. <laughs> waaw yëpp daal mën su ko wax waaw waaw woy wuy këpp gaal daal kenn du ko woy waaye daal boo bëggee dégg dëgg mooy mm. dafa nekk ci ay gudd yu bët setagul ñaan nag mën na lu ne mm-hmm. mais coow li mooy ñiy bàkk ko mm-hmm. nan président Ousmane ko nangam dañ koy utee buzz mm-hmm. ah. xam naa ci ñu bëree bëri ah. gis nga lëfee bari kat bi gis naa ñu si génn doon wax sax ci barricade bi naan nangam nangam soof na ma dugg na fii hmm. gis nga léeg-léeg ñu day la secret d'état boo xam ne man nag du sukkandikoo ci ay secret d'état hmm. man déedéet loo xam ne nit a ñëw rek maanaam day ma ko hmm. ah ma day la lenn loo xam ne bis sàngam danañ def nangam ma génn rek tàmbalee wax déedéet loolu ko amul baatin di làmbatu moo koy def man damaa yor misaan is sa xamoo ni waa 24 ñu ngi may dégg parcelle waa CSN Jobaas it ñu ngi may déglu ji bi may am maanaam vingt ans mhm. laa toj parcelle bi unité 24 mhm. maa ngi leen di nuyu mhm. toj CSN Jobaas waa dëkk baa ngi may déglu te booba vingt ans laa am booba am na xale boo xam ne tantaam dafa feebar ñu andil ma ko parcelle may siyaare meer wari bari booba ak waa rek ngàcc faal ñu tegal ma siège bi ma toog ñu ñëw wax ma ne ma diw dafa feebar man leen bu ngeen amee xale bu bàkkaaragul de bu ngeen ko indee mu wax leen lépp ñu andi ko mu toog ma ëf ko mu fees del ana jëmm ji ñëw na lu daal sa tante mu expliqué scénario bu compliqué boo xam ne mhm. ñëpp sax dañoo rus ñàkkatooy xeeb mhm. waaye nag di jaay ji daal ne subhanallah i sax xam nga ni kii xale bi xamul sax lu daloon tàntaam tàntaam nii mu a nettalee ni li ko dal mhm. nii la film bi ak na mu compliqué ak yëpp la ma ki feebar nettali ñu jaaree fa ba ni ma demee seeseen jobaas maanaam toj fa ba dëkk boobu sax ku fa juddu di nga dégg kan mooy maam Cheikh xam naa bu ñu ko seetaanee dinañ na ah, mm-hmm. kon diw maam Cheikh a ngi ne ndax dama faa bàyyi trace boo xam ne mm-hmm. yooyu du caaxaan gis nga raw xaan boobu mm-hmm. soo ma wooloon xale boo xam ne maanaam dix-huit ans la am ba ba muy mën a wax rek ràññee mooy cinq ans su ma ko ëffoon fii nii bu ma ne ko woon ma président Macky Sall loolu ku ko weddi ñëwal sama kër léegi ngeen def ko en direct wala ñooñu léegi mu wax la maanaam sa soxna bi nga bàyyi kër ga mhm. lan lay def foofu dama naan ko tàllalal bu tàllale fii lay gis président Macky Sall mhm. li mu mujjee waxanteeg Marème Faye Sall président Ousmane Sonko ban yëre la sol mhm. waaw loolu ku ma xam xamee ma ca loolu Mauritanie tamit kazalika ku ñu masaan a sàcc sa oto ay indi xale bi rek ma ne ko na la woon fii nii oto bi nii ngay def rek localisation bu ñu waree jàdd ñu jà ba kër gi ñu tëj oto bi ñu Mmh. booba 2004. moom nga def ko jàkk rek. Mmh. góor yàlla dëgg ka mën a dékku. Mmh. moom mii. ku yàlla may moo mën a jàkkaarloo moom di ko xool mu lay xool mu lay xulli nga koy xulli man dee ma xulli ma lay xulli naa ñu ak ñuy nuy dégg mais wallaay laazim ma xulli maam ma lay xulli man la faali ñaa waaw sëtu Cheikh Samba Diarra Mbaye sëtu Sambaawa Ndiaye waaw Sambaawa Ndiaye Sambaawa maa ngi ziar Alaaji Mbaye Jëy Cuun jërëjëf maa ngi nii dee ma xulli ma lay xulli dama bëgg nag wax la nga dégg ñu pare may laaj nee nanu ëllëg président du président Sénégal nee na nan nga ko gisee ak kan la war a mën a doon waaw parce que dañ ma bind laaj wax wax ma ko loolu tam ma lay laaj dañ ma caa wanoon loo xam ne yàgg na lool avant 2012 ñu jékki-jékki ne yàllaa ngi fal buuru àdduna yi ci mbaaxub suñu borom ñépp jugandoo nag di dem di daje ca pays ba nga xam ne nag ci mbaaxub suñu borom subhanahu waaye du ma ne lu ma lu ma laal la mhm. waaye fi ñu war a dajere daje ci pay ba buntu la bu melni buntu automatique mhm. day taju fat nank di taju fat nank ñëpp dañu wara daw dugg mhm. ma sen si nag président aduna bi ci baxu sunu borom subhanahu wa taala na ma gis ci Donald Trump dafa ñew ba xajal wàññeeku bima ma dañu ne ma wàññeeku bi baxul ci mom motax mom rek mo ciy def ben mandat léegi biñu dajé nak ñu tambalé lim mm jalo. ñu ne dëkk sàngam fal nañ président sàngam mhm. at sàngam ba at sàngam par ñaar la ñuy fal nag ñu daal di bër ba esti ci Ablaye Wade waa PDS nag ñu baal ma li ma suñu borom rek wan la mhm. léegi ñu ne président Ablaye Wade ñu ne nguuru PDS folli nañ Ablaye wadd nguuru PDS jeex na folli nañ président lay Wade ba folli waale turu PDS ba péncub yàlla kenn doot ci falooti mhm. moo tax nag bu ñu bëggee falu nañu changé bu Karim bëggee doole na changé tur am na sax ñu ne ma changé na ko mhm. léegi ginnaaw président Ablaye Wade ku ñëw ñu ne la koo doon ku ñëw ñu ne la mënoo koo doon ba président Macky sàll nii mi ngi sol ensemble costume bu ñuul kukk nekk ci ginnaaw taxaw ñu daal di koy woo mu ñëw ñu dindee yëf yi mel ni médaille ci président Ablaye wadd takkal ko ko na ko at sàngam ba at sàngam mhm. moo tax boo gisee fi ma ngoy ma ngoy fa rek dañ na ko at sàngam ba at sàngam léegi nag ginnaaw président Macky Sall ku ñëw ñu ne mënoo koo doon ku ñëw ñu ne mënoo koo doon billahi wallahi bi salafi quran mhm. ak ndox mi. Mhm. ba Souleymane Ndeena Ndiaye mhm. mi ngi sol Istanbul costume bu ñuul kukk ñëw taxaw ñu ne ko ginnaaw moom mën nga koo doon waaye nangam lii ak nangam nangam loolu moom du ma ko wax Souleymane Ndeene Souleymane Ndeene maanaam ku kenn xalaatul billahi lazi la ilaha illa huwa ñu ne ma Souleymane Ndeena Ndiaye mi ngi sol Istanbul costume bu ñuul waaw lu ñu ma xam xam ne yàgg naa koo wax. dégg naa ko sa benn sortie nga wax ka ni. nii la Souleymane Ndéné Ndiaye déglu naa la. seetaan naa dañoo reetaan ba tëdd ci suñu ne kii mm-hmm. moo yabaate gis nga baatin. Mm-hmm. gis nga baatin ak mm-hmm. warul nekk loo xam ne boo ko waxee ñu ne ah waa lii day lu yenu maanaa la. lu tax nit di jug di dem ay dëkk dëkk di seetlu. mooy mën a xam fu ñuy teg seen tànk ak lan. waaye nag moom. attention néew man ak moo koy doon mhm. waaye biñ ko wanee dañ cee teg condition boo xam ne li fekk tooguma ak moom mhm. laaj ko ba xam ndax nangam lii ak nangam lii ak nangam lii mhm. ndax dañu ne nangam lii moo la koy xañ moo tax ma gëm ni rek mën na koo bañ a doon parce que dañoo teg benn condition boo xam ne nag moom du ma ko wax ci télé waaye bu nu toogoon su ma ko tuddalee tudd kooka billaahi lazi ku mu xam lay doon te dinaa ne moytu ko moo lay xañ troisième président man cinquième président yow man cher man Mhm. dama bëgg. Mhm. nga adatal ma sama tuur Faly. Faly waaw Faly 111 la. Mhm. adatal ma ko lu tax mu nekk 111 nga wax Sénégal ak man man may kan nga wax lu tax tur bi nekk 111. parce que tey man nga am yow Mame Pierre <laughs> te man ñëw adatal ma sama tur Faly la 111 la te wax ko Sénégal yi dégg nga wax lu tax mu doon 111. te nga wax ma man may kan. waaw xam nga man li ma lay wax mooy. waaw waa waa kii xam nañ ko ndax ku ñu mës a seetal. sa rongañ dal ci sa digg deun mm-hmm. parce que misaan bi fay dalek yow di nga juddoogul mm-hmm. legui di ñew ak yow ba nga judd di rap mm-hmm. at yi nga dund yépp ta am jafé jafé daf la koy wax at yi gën ci yow daf la koy wax manam lolo gëna yéme ba nopi wax la sa bis nga ni ma man de bis bobu sax la judd te ca saasa mu leer na ni ko lan di xol dara legui ba nopi wax la say sarax wax la say sifat lolu nak motax set en direct ma di ko daw. dëgg la parce que dafa nekk leen loo xam ne mën naa laa gisal wax la loo xam ne te man damaa deret. dëgg la misaan laa yor. Mhm. te boroomu misaan war ta fen mhm. lu ma gis rek war naa nu ko kii te sa noon mhm. maanaam mën na caa jaare ndax nit bu xasee ba xam sa biir. xam sa nangam xam sa nangam waaye gis nga boo ma jëlee kii moo leen ñu nekk internet bi xam nañ ko. loolu da nga gis sax sëriñ boo xam ne xama nga Sénégal li nga li tax nga xam ni xam-xam ni nga disparaître. gis nga raw xaan bii rek ak yiim ñu bëri boo ci waxee rek. ni mu lay wanee maanaam président Macky Sall. lu ñu suul mu sulli ko waa loolu bu ko xam-xam mënul kon lu ñuy woowee nit borom xam-xam. dëgg la waaye dafa yéem ñu ne ba bu la téeméer woowee mën nga wax ni bu la cent woowee quatre-vingt-dix yëpp seetluwuñu dañ lay seetlu ba xam. li nga wax na dëgg la. Mm-hmm. léegi da ngay gis am na soxna sang may seetaan soxna maam jaara mm-hmm. maa ngi koy ziare bu wér mm-hmm. di ziare yét soxna xadija si mu baax mi sama yaay sama xarit waaw di ko baax moom moom sëñ Demba Dia yal na yàlla yokk leeram mu léegi moom gis na loolu léegi da ngay gis ni maanaam xilmul misaan bi dafay loo xam ne bu tiiree bu tiiree ci nit maanaam dafa lay gis gisin boo xam ne tey lu nekk mën na ko mën na la koo indi waaye léegi nag xam-xam dafa disparaître disparaître boo xam ne léeg-léeg nga gis benn sëriñ boo xam ne daf may seet si ñëw ne soxna si ana sëriñ bi mu ne ko mi ngi si biir mhm. aal ma sijaada mhm. mu aal ko sijaada indil ma kaamil daal di teg mhm. ñëw xaabar xaabar toog julli ñëw toog jàkkaarloo man mhm. damay pare sol sama garaam boobu rek ñëw toog mhm. sëñ bi damaa bëggoon seetlu mhm. nga xam ni sëriñ la day weex bejjaaw nag defee ma ne ko ah laaj ko information yi may soxla ci man mu jox ma ko fa ma toog ma jàppal ko jàppal ko mu ne ma ay na yiwén man sëriñ laa dama bëgg ñu fasante ko la de est-ce que xam nga ne dama doon ñëw pour natt la parce que dama ne loolu lu mu mën a nekkee moo tax nag dama leen koy faral di wax amul nii sëriñ nii nangam am na kilifa gu mag doomi kilifa gu mag mhm. dama ne ko bi ngay am vingt ans lu ñëw ci yow dalay ñëw moo tax say mbokk génn leen mhm. mu nettali ma ca ba muy am vingt ans loo xam ne mhm. kéemaan la waaw loolu moo lay xamal ne maanaam xilmul misaan waaye léegi boo indee loolu rek day yéem ñu bëree bëri te loolu xam-xam bu ko mën jaratul seetlu dama dugg tata waaw tasante faak benn waaye nee naay dafa may dóor waaw Yves waa ji ndax dugg na toog sama wet jekk saa ma yow mii de dama la gis ma ne ko ci loo ma gis mu ne ma non dama la gis yow il faut nga jël sama numéro téléphone seetsi ma ma koy déglu rek ma ne ko mais ci lan nga ma gis da ma gis ci loo ma gis turam sax bëgguma ko tudd mu ne ma non yow dama la gis actuellement ne ay tolof tolof ma ne ko tolof tolof yi demee mu ne ma non da nga war a jënd ñaari xar indil ma ko patati ma ne ko sëñ bi mu ne ma naam déglu ma rek Yves barki Mouhamed maam Cheikh ci télé laa ne te moom maam Cheikh ci télé laa mi ngi may seetaan su fekkee mi ngi seetaan guddi gi ma bàyyi ko ba mu wax ma ne ñaari xar ak lan mu ne ma il faut nga jox ma ñaari xar jox ma benn yére boo xam ni doo ko ñëwaloogum pate ma ne ko sëñ bi mu ne maanaam ma ne ko fajil sa tànk yooyu nga an nga am tey barke Muhammadu Rasulullah barke laa ilaha illallah ak weeru tam xarit bii ma ne sëñ bi mu ne maanaam ma ne ko wuyu ma fajil sa tànk yooyu nga xam ne faj nga ko fu ne mm-hmm. ma ne ko yee sa tànk yi mu ne maanaam ma ne ko man mii maa lay ñaanal mu dañ xanaa jom li xool ma mu ni may lan moo wax dama am tànk ma ne kat dugg ci moom. Mhm. nit ñi yamunu. macha allah barke am na solo. sa xam nga ni chiffre 4 mooy doon sa chiffre. doo borom chiffre 4 yi. Mhm. bisu mooy sa bis. Mhm. ba noppi yaag télé yi da ngeen a bokk tabixa tabixa. barke Mohamed léegi tàmbali 1111 dee ci moyen 9 di ci moyen 9 day dem 904. di nga ci am jëlal sa téléphone. nga bu baax dëgg nga.

waaye nag da ngay nekk koo xam ne nag eh, ku ñoŋal sa bopp nga kenn du la cox boo nekkoon al toppe heure bii kenn waxatu ko <laughs> dépassé nga fii nga nekk mhm. waaw comme mooy li ma wax ci mhm. télé bi rek sifaatoom jeexintal yooyu jëmm ji nag jëmm ji la ma yàlla booleel man naw ko ndax jikkoom ndax man kenn mënumaa yëkkati mhm. barki Mohammed mais jëmm ji xoola dañ koy ñaanal yàlla Yves man dama am ci moom kerse ba nga xam ni su ma nee carte téléphone émission rek xoola dama ko naan amul benn problème mhm. ndax jëmm ji yan na yàlla guddal fanam parce que Ibrahima mhm. Ibrahima la tudd mhm. te yow xam nga ni yow <laughs> xaliim non nanu bàyyi noonu yow daal dama yàlla bari na sutura macha allah yàlla bari na euh, sutura ñu ci nuyuwaale sunu baay bu baax ba ca Njaasaan mhm. muy Serigne Ibrahima Kunta sama xarit euh, di ko ziar bu baax a baax mhm. di sunu kilifa di sunu papa ku ñu yéene lool mhm. fu mu toll mu ngi ñuy bàyyi xel moom ak sunu yaay soxna biige borom waañ bi foofu ca Njaasaan ñu koy ziar bu baax a baax umu léegi nag euh, ñu dem ci dernière partie bi Ah, ndax xam naa ne euh, sëñ maam Cheikh moom dootu fi gëj. ndax ah, moom xam-xam boo koy wax moom. da dimbali nit ñi. te dafa war a leer. Ah, ñu dem nag ci mbirum ñaan yi yi nga xamante ne message yi ñëw na mbirum jëkkër yeeg yooyu loolu laa njëkk a jot. wax la mhm. wax ko mu ñaanal ma ma am jëkkër. Mhm. <laughs> jëkkër. waaw jëkkër da am na solo. <laughs> ndax fu mu ne nii zuy ak zuy na li lazina kafaroo. Mhm. koo ci bindal ci jigéen juróom-ñaar. mu boole ko sànqal sangoo ko juróom-ñaari fan am borom kër tey boo bindee tamit wa azzin fi naasi bil hajji yaatoo ko rijaalan wa ala kulli daamirin yaatiina min kulli fajjin xamiixin nga baamu xamiixin boobu noon juróom-ñaari yoon def ko saafara rek fekkal ginaar buy nen te pareegul nga toppale nen ya tibb ca suuf sa boole ko moom mu sangoo ko juróom-ñaari fan am borom kër am na ci sekkareem yu bëree bari yoo xam ne pour jigéen joo xam ne dafa bëgg a jëkkër mm-hmm. ndax day doon bayre boo xam ne nag boo ko jëfandikoo ci yooyu yëpp ma wax rawatina zuyina li naasi bi ak zuyina li lazina kafaro mm-hmm. góor ñi dañuy men ci yow ni weñ bu gis màngo mm-hmm. waaye boobaa nag na la say tax a jóg ndax jigéen dafa gaaw a naagu boo gisee nag ku nekk rek ñëw tàmbalee fëgg mhm. boo moytu danga naan ah naa naa naa toog bañ a gaaw a sëy mhm. waaye na la soxna borom kër rek tax a jóg mhm. nga xool ci gaa yu bëri yooyu ñëw mel ni weñ bu gis màngo nga xool ci koo xam ne seen tabixa dëppoo na nga sëy bu dee jigéen ju bëgg jëkkër nag bu bëgg ki góor gu bëgg jabar moom da ngay bind falam maara ay naaxu ak bar naaxu na waxataxna aydiyahunna waxulna xaasa lillahi ma haza basaran mhm. inna haza ila malakun karimun mhm. mooy li yàlla nettali ci yonte yàlla yusufa mhm. ci ginnaaw bi ko jabaru buur ba siifee nit ñi ne ko danga ñàkk fayda mu ne leen mu ne leen mu wax la mbottu waxoon rek ndax mbottu dañ ne ko xoroma diis dana xoroma diis ñu ne ko noo ko xamee mu ne ko ko yenoo ma joggi waaw dana xorom a diis ñu ne ko noo ko xamee mu ne ko ko yenoo ma joggi mhm. moom nag mu ne leen la ma yëngal mhm. ku gis leer googu noonu di mhm. nga def lu raw li ma defoon ndax leeru yonte yàlla yuusufa nag waaye ci dara jay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nga gis fi mu jaar invité leen rek benn fête boo xam ne mu mu organiser fête boo xam ne invité ay copinam léegi invité invité yonte yàlla yuusufa ni ko alxuraan nettalee waaye nag mu jël fi jigéen ñi maanaam toog mu jël bunt boobu mu war fa jaarale yontu yàlla yusufa mm-hmm. waaye keroog bi yontu yàlla Muusa euh, yusufa ne tëll mm-hmm. bi ñu ko gisee rek dañoo dafa mag ci ñoom leer gi mm-hmm. gann leen bañ naan xanaa kii mooy yàlla ndax kii nit la isa kii du malak malaaka bu jigéen ci suñu borom subhanahu wa taala waaye wax nañ ne dañ doon xool yontu yàlla yusufa ba sen firwi yañ doon dag mhm. wala ya mhm. di dag sen loxo ya manam te yëguñu ko motax lolu loolu gu koy jëfëndiko mhm. jigeen ñi tamit dañuy mel ci yow way timin timin lay andal waaw amna ñu ne mo indi li waaw ci mandal ga amna sira yu andi lolu riwayat yu netali lolu waye nga gis ni lolu kon dafa nek lo xamne bañuy nek daara ja rek da nga ko def juroom ñaari yoon boy duggu ben kër di fa labati daal di daal di wax sa xel daal di ne wa kër gi yusufa ngi ñew bo demee dañ lay tek ci benn waay boo xam ne loolu rek ngay wax a ngi ñëw juroom ñaari yoon rek nga ni wa kër gi waaw a ngi ñëw waaw a ngi dama lay daara xam nga moo nga daara tay Atay Express ngeen def am yu muy la saaru primaire lool nak la saaru primaire la amna yu gëna for yoy yu gëna for yoy yooyu gis nga amna na lamb yi amna baat bo xam nak duma ko wax góor gi ma ko jox tafaatin saa bu doon bëre dana fa dem mhm. sama bàyyi la sama xarit mhm. di góor gi naawaani mhm. ca ndar yal na yàlla guddal fanam di ko baax di ko bëri woon a góor gi naawaani waaw woo ma day loolu baat la boo xam ne boo boo ko ëffee sa loxo boo xàccee loolu moom ku nekk gendal xam nga ko góor gi naawaan yi ndax man sama xam-xam damaa jege woon mag ñi waaw xam-xam laa bëgg te ku ko mës a am mhm. di mag damay xaritoog yow mhm. waaye mu jox ma baat boobu xoolal benn baat rek nga ëf ko mhm. boo ngëbee sa loxo boo xàccee cinquante kilos la boo dóoree cent kilos la am na benn reporter boo xam ne Gaston euh, kan moo ko wax sax kii Bekaay Mbay da nga naan ko ay lu muy ci loxo bi looy ci loxo bi waaw fekk na nag li muy wax xam nga mag yi géwéli rek kon kay kon kay ci li li guy gi kon xanaa doon jëfandikoo. ba ku mu ku jóg a toll waaw loolu ay baat la daana ko jat. jat boobu mu doon mhm. ko jat. di nuyu waa Thiénaba Seck kon kon loolu doon ay caaxaan parce da da doon sóob rek loolu ku ko xamul di mhm. mhm. am na ci gis nga maanaam nit ñu convaincu la rek ngay wuy ji si yoon. am na baat ñàkk fayda yoo xam ne boo ko waxee. ba noppi rek nga daal di xoos sa bañ yi nii. xoos ko sa jëf yi dem wuy ji. boo demee xanaa xamoo ni bi. wala wala commissaire bi ci hmm. reetaan la lay bàyyee hmm. yaay doon gaañinam hmm. nga ni jaal nekk ay gaañin du la tëj da lay bàyyi nga dem ci baat bu ndaw la beneen baat boo xam ne boo ko jotoon dem toog maanaam tamit ngay dem ci réunion wala ngay layoo ji wala lu mu mënti doon yaa leen di yey loo wax kenn du ko dindi d'accord am na aussi keneen koy laaj après xam naa umu ñu ñu ñëw ci question yi moom mbirum muslaay ak cat nee laajal ma ko Euh, mbirum muslaay ak cat euh, Tafa ñu ngi lay nuyu ba nga ba Sandaga. Mm-hmm. waaw sëñ Moustapha maa ngi koy ziar alkarim. Mm-hmm. sëñ Moustapha. Mm-hmm. waaw di nuyu waa Sandaga yëpp. waa laaj na lu am solo ndax dañoo toll ci jamono joo xam ne lu waay mus lu te léegi nit ñi buñ la mënta liggéey dañ lay catu. dëgg la cat moo jàpp ñëpp. cat moo jàpp ñëpp moo tax sëriñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu da daa wax naan ahasanallahu boromub làmmin moo gën a gaaw maalaw bu gàddu seen nii. gis nga koo xamee ni dafa dafa maanaam xarañ moo tax mu jël maalo mooy suñu mbokki lawbe yi nga xam ne dañuy xam fu ñuy jaar garab bi bu ñu ko bëggee gor mu ne boo waxaaleek ñoom ñu war la goral garab bi nga xam ne diggante bi ngay duggee di génn boo maytula da nga ñëw fekk ñu gor garab bi ngir gaaw taxaw ne le nee na làmmi na ko gën a gaaw moo tax mu ne a xasanallaahu boroomu làmmin mm-hmm. moo gën gaaw maalaw bu gàddu semmiñ moo tax wax nañ ne Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacke bàyyi soxna maam Faati ak sëñ Abdoul Karim ak sëñ Ahmadou waaw maami soxna Momi Ndiaye ak soxna Astou Gawane Ndiaye ak soxna May maami Bamba Ndiaye ak sëñ Lamine ak euh, Baye Modou macha allah yal na yàlla guddal seen fan nga gis ni maanaam euh, bu ma sànni tukki sax wax nañ ni am na foo xam ne bu fa àggee danaan chauffeur bi duwaatel waay mu duwaate mu ne ko xaaral ba xaat àgg waay mm. nga xam ne li ñu naan sëñ bi boo demee àgg na xaat nag boo demee sëriñ bi mi ngi naan ca xas bi ñu tuddee xattaaba xalbiya lammallaahu mhm. sallamani mhm. mi ngi naan bihi udaafiqu mhm. an makril xasoodi wa an charil kalaami wa charil ayni wa zamani ne bihi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam udaafiqu lay jañee lay dàqee an makril xasoodi maanaam pexeb ñu iñaan ñi xam nga nit dina iñaanee nit ba pexeel ko maanaam bañ a bañ ci rek teg ay dëgg sërëx yoo xam ne lu doy waar a ngi noonu makril xasoodi mhm. maanaam loolu yal nañ ci yàlla musal mhm. maanaam nit jéem bañ la rek mhm. maanaam pexel la pexe yoo xam ne ñëpp dañ naa waa diw mi lum lum ko mënee te fekk ay pexe la rek mu ne makril xasoodi wa an mu ne saril kalaami ayu gémmin saril kalaami wa saril ayni ak ayu bët xanaa xamoo am na làmmiñ yoo xam ne lu ñu tudd mu yàqu. lu ñu tudd mu yàqu. dëgg la jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañ yeew nit siira indi nañ ko ci téere yi ne buñ ko masaanee yeew mooy mhm. nit la koo xam ne lu mu tudd mu yàqu moo tax dañ ko daay yeew kër gi ñu isolé ko mhm. nga gis ñoo xam ne tamit buñ la masaane xool lu ñu xool mu yàqu ku mel noonu dañ ko doon isolé waaye léegi nag kenn xamatul kan mooy kan dëgg la de waaw te léegi nit ñi dañuy wax te du duñu wax macha allah moo tax sëy yi tas si tiktok bi kenn xamul nu mu toll ah diw de la mu ko may ba yéeba gis nga di nangam commentaire la nga Sénégal bu ñu la commentaire ba bàyyi ak feneen feneen Sénégal mm-hmm. boo moytuwul a cat googu noonu boo ca jógee sëy ba mm-hmm. ah te li ci gën a maanaam sedd sax ci seen commentaire yooyu mm-hmm. mooy sëy bu tas wala am problème wala jaaree fa feebar ne boo moytuwul rek wal xiyaasu billah moo tax nga gis sëy yu bëri yoo xam ne ak ñoo xam ne dañuy génn àdduna ah moo ne semaine bi lañ ko doon takk parce que lammin moo doy waar mais est-ce est-ce que ñoom tamit dañuy dañuy seen bopp. waaw parce que tamit ñu war la takk. Mm-hmm. déjà mm-hmm. nga nga jël affiche. Mm-hmm. defar photo affice bi. ne dañ may may jabar dimanche. dayaa rek catu nga sa bopp. am na ñoo xamante ne yéenewuñ la. sëy boobu. dañuy commencé di yàq. daa ngi catu sa bopp. beneen bi ñu may la warugaru cinq cent mille. nga dem uti ay billets yu bëri ñëw tegle ko ne may nañ ma trois millions. dem loué ci njaga njaga ñaa ca Pikine. borom or yi. parce que moom laa mooy sama copain moom laa. waaw nit ku baax la nga dem loué foofu. or. mu jox la nga ñëw teg. jaaro jamaa nga ñëw teg snap ñu ne may na la trente millions. dem jël benn oto foto ko. oto bi jar cinquante millions. dèjà yow catu nga sa bopp te duggagoo ci sëy bi. te fekk moo en général sëy yooyu yëpp boo xoolee deful six mois mu tas. parfois aussi est ce que du ñoom ñooy catu seen bopp. waaw ndax euh, yàlla ndax aaye bi faj cat sax mhm. maa ngi koy jox sëñ Moustapha moom mhm. di ko jox waa Sandaga mhm. mooy dafa amoon aaye boo xam ne aaye bu doy waar la boo xam ne mooy wa in yakaadu lazina kafaroo la yaslixoonaka bi absaarihim lamma may siise radiyallahu taala anhu wax nañ ni daana wax naan faatixa aaya bu ci nekk nga def nga def ci wa in yakaadu lazina kafaroo mm-hmm. muy juróom-ñaari aaya yi di mm-hmm. juróom-ñaari wa in yakaadu mm-hmm. nga bind ko nag ci ñetti kayit bind benn bi bindaat benn bi bindaat beneen bi nee na ñett yooyu kuñ ko defal kala ko defal amoo weexalam ndax yàlla dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Cheikh Tidiane si almaxtoom mbàyyi Serigne si di ziare mustasidiina yëpp dama ko mës a dégg mu firee ko firinu xikam ndax dane wa in yakaadu lazina kafaroo la yazlixoonaka bi absaarihim yàlla dana yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi la bañ di ay yéefar buñ la mënoon a dëmm ci seeni i bët mhm. dinañ la dëmm seen bët li doomi ndar naan xaare ndax léeg-léeg nit bañ la bañ boo xam ne mhm. nga am lu baax rek mu xool la ne la mhm. li ma la xaare mu lay xool bëtu xaare yoo xam ne bu noppee rek eh, foofee nga jaaree moom yow ndax cat dana jàpp jigéen sëñ Fall cat dana japp jigen, jigen ju lol, lool masana mu rombu ñepp ñëpp masal nga ngi ba waaye ay quelques jours la wax ci mm. gaway ba mm. wala quelques mois mois rek mu rombu la mm-hmm. wala bo jeggi won sa ndab sax sa ndox doko ko bëgg jeki naan mm-hmm. jekki jekki gemmin gi weng wala sok dal ko la mu am cicatrice ci jëmmam <coughs> cat day def lol ah, cat dafa mm-hmm. nek lu doy wa nak serigne bi sax neena na gi mu ñak dekk touba di jàngal alxuraan loolu cat la ci moom. Mhm. kon cat nag maanaam. macha allah umu waaw. bëggoon rek laaj ko secret mhm. karatay ni. Mhm. waaw karatay ni secret bi laa bëgg nga tojoo. waa xam nga karatay ni moom. Euh, maanaam gars yi dafa am ay secret yu ñu ciy def. xam nga léegi Sénégal moom. gars yi dañuy jékki-jékki rek andi benn buzz. def benn slogan. di rëyal. lu rëyul donte alxuraanu karim moom mhm. benn araf nag xeebu ma ko nag mhm. baat la bu am la mhm. mais léeg-léeg ñu jox valeur loo xam ne nit ñi dañ cay topp di daw ndax tur bi fekk na lox ngir tur ba tur ni ñu koy waxee naxa xuróof bu nekk rek araf bu ci nekk ci alxuraanu karim boo demee ci samsul maxaariful kubra wala nga dem ci man baxu usulul xikma téeral asraar yi mag yooyu man baxu usulul ramli mais boo demee ci samsul maxaariful kubra borom samsul maxaarifa kubra indi na nit benn araf bu ci nekk ci alquranu karim lu muy jëriñ mhm. boo déggee ñu ne maa farat naa fi kitaab min shay in alquran bawul dara mhm. loolu la arafu mhm. alif rek am na lim boo ko ci bindoon am na lu muy jëriñ am na boo gisee mag ñi ñu doon wax gay deel ci arafu deel bi rek daan nañ ci defee lu ne ba tey arafu keef yi xanaa xamoo ne keef rek nga bind ci vingt li mu arafam li mu kii euh, maanaam limam maanaam xam nga Euh, keef 20 la mhm. tey boo bindoon 20 keef rek yoo teqale bind ko ba mu mat nga jox ko sa doom mu takk ko la nga takk ko nitu guddi du mhm. mën ci moom dara tax ay keef rek la te tey boo ko joxoon nit mu tekk mu kii ko mhm. taxan ñi ko danaan kii daf maa yëpp te loolu lay jëriñ boo demee ca samsul maxaariful kubra andi nañ ko fa ba tey tamit nit bu lay wax lu ñaaw nga bëgg mu bàyyi ko adadal li mu turam nga bind ko ci arafu keef ma nga ca téere ba ba tey mhm. yu teqalikoo rek li mu arafam li mu arafu turam li mu turam nga daal di ko def saafara tiim ko ne yow yàlla diw mii di ma wax lu bon lii am amee sama der bi rek laa bëgg na ko bàyyi mhm. nga sangoo ko booy xëccoo tamit teene la ngay xëccoo kër ak looy xëccoo fexeel ba ka nga koy xëccool turam nga bind ko ci li mu arafu keef yooyu def ko saafara yéene ci yàlla ànd ci nag pësteef ak dogu ne yow yàlla kat maa ngi ñaan diw mii li may xëccoog moom na ko bàyyeeg man nga sangoko waxuma mana gay yi adat ay 2024 ak nangam pour bëgg nguur gi ak yoy non tax nit ki su la defee lu ñaaw wala tay mu bañ la nga bëgg tay toxol ko nga jël su mara daddnaaw safilin saafiliin <laughs> yàgg ngay narate yow ma mhm. eh, macha non non dama dañuy waxtan rek mhm. yi su mara daddnaaw asfala saafiliin boobu ah. laa bëgg nga tojal mako lu tax ñu war ci mëna def lo xamni tay wa xam nga lolu li koy wara moy alquraanu karim mhm lo xamul la bu ne kenn xamuko lo mënul bu ne kenn mënu mhm. ndax dafa wax ni dafa bind doomu adama doomu adama mhm. ci ahsana tahwim deug la dafa bind wallahi doomu adama bi di gorlu ba tollok malaika yi manam mhm. da daraja ndax Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala anhu kawlahi di ziare sëriñ may nyas ak mbollem njabotu Cheikh Ibrahima nyas Cheikh al Islam daana wax naan yalla mën na may lu ne ba mu dess nguuram sëriñ bi ne wa baabulaahi lam yarku mhm. murtajaa buntu yàlla tëjuwut de mhm. du mës a tëju ku ko wutee ni ko mag ñi doon wutee rek yàlla mhm. nangulee la nam ko nangulee mag ñi léegi nag suma raddadnaahu suma raddadnaahu asfala saafiliina doomu aadama bi nag di delloo boppam gannaaw suufel boppam ba golo sax ëpp ko màtta ba fa suñu borom ngeen baal ma ci waxin ba loolu nag day delloo nit ginnaaw boo bëggee toroxal loolu sa ëpp na ci nga torox toxal ko moo tax ëpp na di def nit dëgg la na boo ko defee mën na deltu ginnaaw ba dëgg la maara day taali dëgg la doy waar a ngi noonu wallaay wallaay ne maam secret yow moom macha allah faali moom ayca <laughs> oh, waaw sëñ bi man damay laaj mhm. dañu toll jamono boo xam ne gisatoo nit ñi di xeex ci mhm. mbedd mi mhm. da ngay bañ nit defu la waxu la mais ki ngay xeexeek moom dem ci xarfa xuufa jabar ko donc njabar mhm. naka lay tegtalee ci yaramu nit mhm. naka nga koy sentiré ba xam ne mhm. carrément dañ lay njabar bi ci topp damay dégg ñi naan la boo géntee xaj seytaane la comme xaj yu ñuul ñi naan la njabar la ban la ci waaw laaj nga lu am solo ndax wax nga ni léegi gaa yi lu ci bëri dooleetuñu ay kurpañ dooleetewuñu ay kurpañ waaye dañ lay njabar te njabar dafa nekk lu doy waar loo xam ne gis nga mooy sayaatinul jinne yi ma waxoon ak sayaatinul unaas mhm. mooy saytaane bi nga xam ne jinne la ak saytaane bi nga xam ne nit la mhm. sayaatinul jinne yi nga xam ne nag ñoom yàq rek leen tax a jóg mhm. mooy kaay def lu bon ma jàppale la ci moo xam nit ki jalang la koy defee moo xam nit ki ay fétis la koy defee te saa boo tracé rek xaatim muy bisimi laahi rahmaani rahim rek ñeenti koñi rek jinne yi xaatim bi concerné dañuy teew mhm. di di surveiller mhm. nga daal di dugal di nga chiffres yi may wax mhm. mooy adat yi ñuy dugal rek ci xaatim bi boo dugalee chiffres yi otal ko bayti xaal ci digg bi def ci turu nit ki daal di ci def maj noonu dof jinne yi nga xam ne da nga ko bëgg a dof loolu ñooñu nag ñooy jug nag dugg ko tàmbalee jaxase xel mi bu fekkee da cee def diw bu mu am jëkkër muy jaxase xelam wala mu jaxase waayu ku mu am rek mu ñëw. mu ñëw dàq ko mu ñëw dàq dëgg la léegi nag bu seetloo nag. Hmm. ci yenn sëriñ si nga xam ne nag gis yomb na. Hmm. tanum mhm. gis yomb na waaye ràññee li nga gis mhm. moo jafe dëgg la gaa yi ay giskat lañ Sénégal nag daa bëri giskat daa bëri ay waaye nag ay ràññeekat ay ràññeekat moo fi jafe dëgg la ma gis nag kenn ku ci plateau wala ñu bàq ko seet muy génn di wax loo xam ne ni ma mhm. <laughs> ne nag xaw na ko gis la kaw bi waaye biir bi nag la gisul dëgg la gis na nag tëdd na gént waaye dafa ràññewul li mu gis dëgg la léegi nag ka mënul ràññee nag daal dina ax raba ko jàpp léegi bu ñëwee ci man tama xam ne liggéey la damay xam ne wax na dëgg la mu gis mooy jëmm rek la gis mhm. mais cheyaatinul jinni bi ngànk xaatim bi ba mu tracé bisimilahi rahmaani rahim rek ñoo ñu ñoo ñëw mhm. ñooy dem dugg ko moom bu xoolee jëmm rek lay gis mhm. ndax jinne ak rab rab ci silsilatu jinne la bokk kéwél bi di nekk ca àll ba muy jinne bëy bi di nekk ci kër gi ñu naan ko rab kon noonu la mel mi ngi mel ni kéwél ak bëy rek benn la be daf ko miné Allah bi bi miné ko kër ga moy mhm. rab ak jinné jinné nak nek lu doy waat lo xamné bari na nak ñu may dégg borom jinné yeeg borom mën na cee hmm waaw bari na fi dé borom jinné yi dama ko mësa tuddal jinné mu ne ma la yalla mhm. la ak mom nak mom kilifa mako ko la mu wax mako ko ñoy fekk kilifa gu te sol lu rafet manam tok ñu ñew dugg la nga yuuxu daal di say manam tifli di jaar fu ne Uh-huh. nga tuur ndox sa sër yëpp maanaam jug di laajte lu xew uh-huh. gis nga jinne dafa nekk loo xam ne tey lu doy waar a ngi noonu uh-huh. loo xam ne doomu aadama yi nag dañ koy fowe mais mhm. xamuñu haqiqatu manam mhm. jinne ah, bo len don laaj sifat yi nga xamne jinne buy ñew rek mhm. ngay nga gis naan sama jinne ji bama jakkalo mom wax ak gis dañuy wax lu len neex rek waaw borom 32 jinne yi nak ko ak 313 jinne man koy nuyu mom moy sama serigne nak 313 dama ko fan ba di jébbalu ci mom 313 jinne yi yew nak amna buma pine ak yoy d'accord amna man dama xamne li tax ma def ko sama serigne dama xamne man rek wax deug yalla jinne rek boy weddu dara tool bo xam wala nga ne sax suñ jinne lata lata jinne biru. aleykum basakum dikk leen meem yax saxaafi minallah bu leen ñëw nag mhm. waaye tey boo koy def rek wala ngay laal lu jëm ci yooyu mhm. ba mu war a ñëw bu ñëwee wallahi azim doo ko bëgg a jàkkaarloo moom di xool parce que du la may mhm. nga jàkkaarloo moom visage am di ko xool ndax day mel ni yaw mi dugg ci foo xam ne dañ ko tëjoon ba mu mel ni comme ay lënd nga xam ne booy dugg ci biir néeg kii bi mhm. barab bi moo xam magasin bi day am yu lay zëne mhm. nga xam ne dangay def nii mhm. maanaam lënd yi noonu lay def sa kanam diggante bi ngay def nii da mal à l'aise doo nekk à ndax loolu moom moo koy def ci yow ndax bëggul nga gis sifaatoom dëggantaan maanaam muy wax ak yow li muy wax ak yow mais doo bëgg lu dul mu dem léegi nag jinne nag mag bi na ma yàlla na ma yàlla tàggaleeg moom yàlla na la yàlla tàggaleeg ñoom jaamul yàlla boo jaamoo yàlla nit ñëw jinne ñëw malaayika ñëw xuddaam ñëw ima jibril wallaahi dëgg nga wax de jinne mhm. doomu aadama ko ëpp valeur mhm. waaye nag gis nga nag jinne moom sunu maam Seydina Limaamu Laay mhm. gis nga bi muy woote ya dafa wax ne aji boo daax yàlla yaa masaral insi insi wal jinni ilaykum Mhm. waaw dafa woo nit ak jinne mhm. parce que wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon jinne baax na mhm. mais jinne jullit sëriñ bi ne bi yataxalaqa lazina aslamo min jinni xasri doona man lam yaslimo jinne jullit di jébbalu nañu ci man kon jinne am na solo waaye nag nga ràññee lu tax ñu koy wut ay buujumaan ngeen baal ma ci wax ñi maanaam di ko damoo bokkut ak nag ay ay ay général nga am leen mhm. ay ministre mhm. maanaam ci waxin jinne buy baax day nekk junney jullit ku la mën a jëriñ waaye koo xamee ne maanaam benn ci ci naan sàngara la la wallaahi mu mm. xirtal la nga bañ a julli la sax nga àgg ci gone gu ndaw la di <laughs> mooy lu leerul léeg ñu naan lu leer ba mel ni midi moins vingt wax na wax na aussi benn question xaj bi mhm. loolu day nekk misaalu manam shaytané moy shayatinu jinni wala shayatinu unas dañuy bokk ñaari firi ki ne seytaane la deug na shayatinu insila insi la ki ne seyaati manam seytaane kii la liggéey la waxna na ndax nee la sayatinul jinni yi nga xam ño ngank khatim bi ba bo tracé rahim rek manam jinne dañuy ñëw kon sayatinul jinni nami manifesto, manifesté wo ci nit nga tedd gënt ko man na la dikké même ngeen bokkale même gënt lii di firi lii ndax seyaatinul jinni ak seyaatinul insi mhm. seytaane bi nga xam ne nit ak noppam la waaw mhm. ah. lu tax ñu koy wutee xaalis jinne di am ay wér yoo xam ni mhm. ku ci mel na tey ay xasuuna waaw ko wax mu indi woon bës boo xam ne waaw di ko wutee xaalis di ko wér di am na lim boo xam sax tey soo ñemee soo soo rag soo ñemee yàlla danga koy def pour am xaalis hmm. lan moo leen ci xiir ak lan moo tax est que tamit xaalis boobu noonu maanaam tey suñ ko amee tamit lan la leen di jëriñ ak fan la leen di yóbbu waaw parce que xasaloona biñ ma ci interpellé laaj ma ci dama ne leen jublu bi moom mooy ba ma la lay lasraa nag nekk gone sama at yi bëriwut hmm. naa ko judd 1984 barki dem moo njaay hmm. at yi bëriwut ko ñoo xam ci benn tali kër soxna maam Faati mooy xam loolu kon at yi bëriwut moo tax 2004 booba mi ñu fekk ñu vingt ans moo tax ma am kii ndax 2004 la woon mm-hmm. booba xale bi léegi am na vingt deux ans mm-hmm. Mouhamed Ba vingt quatre maa ngi koy nuyu di nuyu waa Parcelles yëpp mm-hmm. léegi nga gis ni maanaam benn gis nga bi ma duggee ci lasraar xool naa xoola xool baat boobu mu jaaxal ma ne ko nag man na nekk lu mu tëdd guddi ñu génn jox ko ko man daal leen na xam naa ko mooy maanaam xasaroona bi firi ñaar fukki vingt Mm-hmm. léegi nag ñuy xool nag maanaam ñaar fukki araf yi nga xam ne boo ko liggéeyee nangam ak nangam mm-hmm. waaye ba léegi moom la layalu ko waaye nag xam nga lépp ñëpp lu ne ku ne nga ca mm-hmm. waaye loo xam ne nag moom mbiru boppam la bu ko neexee wax na damaa tëdd ñu jox ma baat bi lu ci waay mën mais dafa am leen loo xam ne nag comme bis baaxu bat bi du kaw rosin xam wax naa bat baaxu bis baaxu bat bi du kaw rosin xam nga wax naa loo xam ne mboolem ñuy dox ci turu yàlla xam nañ ni mooy ñeenti xee miim xañ sin xaaf ñëpp dañ mm. koy xam mm-hmm. tudd naa lépp yi ñëpp mais xanaa xamoon ne léeg-léeg nga gis borom mbooloo yoo xam ne jaruñoo ñee mm-hmm. laaj nga laaj bu am solo léeg-léeg nga gis li tax loolu mm-hmm. mooy bëri na tamit ay borom alal yoo xam ne jaruñoo ñee bare na ci réew mi ndax gis nga bis baaxu bat bi du kawroo sin boobu dañ koy war a liggéey neuf jours waaye dañ ne la bul ko liggéey koo xam ne ñooñ dañoo ñàkk ndax boo ko fa liggéeyee maanaam te ñàkk li ñu waroon a dundee dañuy yëkkati jox ko. jox ko kon da nga koy liggéey ci dëkk yoo xam ne dañoo riis. Mm-hmm. ndax tur ba boo koy liggéey doo manqué dara. Mm-hmm. kon da nga ko war a tarbiya riyaada ko neuf jours. continuer mm-hmm. di ko def dina la indil mbooloo indil la xéewal indil la leen mais nag dafa am ñenn ñoo xam ne nag dañ koy liggéey zulmaani mooy dem liggéey ko ci duus. wal xiyaasu billah am na sama benn waajoo xam ne tey. dafa génn àdduna moo tax bëgguma jaar ci tur bi. mais nag na ci ñima jangal jàngal lasraar mhm. yooyu yëpp nag daf ma teel a formé mhm. di ma yee ci yoy mhm. nee dafa tok bëgg manam manam manam euh, xaj ak dégg ne boko ko ci duus dana gaaw day gaaw lool nee bo mu amone yitté nak bëgg na mbolo kut kut bëgg na xaj kut ko kut na mu daal di jël satala bi rombu ay domam manam kër yi mag yi nga xamné ñepp dañuy dajalo rek goor ñe ah. jigen domam yi ñu añ ba nopi ci digg kër gi di lettante di tek sen ataya añ nañ ba nopi neena mu romb len rek amna naa naan fay dox yitem mm. ne dox ayo mu dem ci douce ba ubbi duggu dal di tok mm. safon xorom la neena mu dal di tok mm. teye kurusam rek mm-hmm. neena mu teye kurus ba rek nan ya bis baaxu bi di kaw rosin mm-hmm. ci duus te yaa ngi ko ni la sa way jur jure mm-hmm. nga ni bis baaxu bi di kaw rosin ya bis baaxu bi di kaw rosin neena jek jek rek ay mbot yu beuri tambale génn ne man ah bi da mi ngi waaj a sama aajo ngi waaj faju mbir yaa ngi tàmbalee ndax nee nañ raw xaan bi mbóot la hmm. nee na ma gën a jekkalaat toogaay bi nag hmm. <laughs> yor sama kurus gën a xëcc bis baaw bët bi di ko rosin yaa bis baaw bët bi di ko rosin nee na jékki-jékki rek ponk lu mbóot la bëxal ñeet ŋaang nee na bëñi nag foo ko nattu weesu na ko rek mu ŋaang wut si ma <laughs> nee na mu daal di ne nag doo ma fi fekk kom fonkal lo won sa way daw rek bif buntu ba dajji tel genn nan bis baaw bët bi di ko rosin ya bis baaw bët bi di ko rosin neena domi tambale yi daw ba sol na ya, yére boobu kañ ni ko ndeyam juree woon neena mu jékki-jékki doomam yi yuuxaloo ñëpp luy li luy li domi ñew sama papa hmm. dof na hmm. neema nan bis baaw bët bi di ko rosin <laughs> bis baaw bët bi di ko rosin nak day bay jeexintal nee na nag waaye bi mu jékkee-jékki ba àll bi wàññeeku nee na ma daal xool rek nee na maay nangam jaati <laughs> nee na boobu daal mu xam ne toj naa fi nee na ma daal di solaat sama tubay daal di kiiwaat waaye nee na at boobu li ma dikkal ci doomi xaalis waaw dikkal ma ci doomi mbooloo am na ñu koy liggéey ñoo xam ne nag duñu daw duñu daw affaire da lay da lay xëmbal da lay da lay xëmbal di la tiital di la tiital mais boo taxee ba mu waxanteeg yow uh-huh. doo ñàkk dara am na sama benn xarit nag ma tooñ ko mm-hmm. du ma jaati tur bi nag kilifa la moom mm-hmm. dañoo nekk Casamance mm-hmm. ma nettali ko ko ah tool bi jox ma ko waay saa waay daa ragal mhm. xaaral ma nit ma daal di kii moom mu mhm. daal di dugg ci wanag bi tàmbali mhm. mbóot yi kii rek moom daal bi muy duggee bi muy génne ma ko ah kilifa gi mu daal ne ma ah si saa waay tàmbali lii lu wér la mbóot yi tàmbalee ñëw mbóot yi ndaw yi ma ne ko nag balaa bu mag bii ñëw ñu naan sëñ ba bi du ko rosi di ma ci fekk ma teel a daw d'accord am na koy laaj aussi beneen question fii nee na euh, ku toog sept amul doom moom loolu daal bokk na ci li ko jaaxal xam naa nag dem na hôpital ak yu nu mel. Mm. waaye dafa am yoo xamante ne hôpital mënu koo lijjanti. Mm. yooyu ay baati nag ñaan moo koy lijjanti. waaw mm-hmm. ndax ismu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. xanaa xamoo ne nit du ci ñaan doom. Mm-hmm. maanaam ta doo ko doo ko am. ji nga xul ooxiye muy sootul jinni aaya bu ci nekk nga def allahu ci kaw def muhammad ci suuf. ñu defante ni. nga jàllale ci beneen aaya ba ba jotaat ko. defante nii ba ba mu mat mhm. nga jox ko ki ñu yaakaar ni moom la bu dee ko jigéen ki bu dee ko góor ki mhm. ñu jox ko ko mu ndax ko bu dee ko jigéen ki la maanaam weer boobu day tëbal mhm. waaw pour wane ni wan na la lor boobu benn la beneen bi ci topp nag mooy ismu muhammad miim xadam dellu miim dell da nga koy yaatal nag boo ñëwee ci miim ba nga ubbi ko ba mu yaatu nga jëlaat beneen muhammad bu ndaw dugal ko ci biir bu mag bi nag sadda bi dang koy def lu melni jumbax dang ko ciy taf mhm. def ko mu melni jumbax mhm. après nak nga dal koy tej waye muhammad bi ci bir nak bu ndaw mhm. bi do ci def jumbax dang koy bàyyi non léegi nak nga diko ko khayran khayran khayran khayran mu wër bind bi yëpp di rek biti waaw na pe nak ñaari téré lay doon ko gor ki tak ben ku jigen ki tak ben bu ñuy and nak di bolo dañuy andi téré bi ci naq bi ñu dal di bolo bu ci dom di gor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko war a tuddee bu dee jigéen ku la neex nga tuddee ko mhm. loolu moom def naa ko defandi ko ay ay mille fois loolu moom du mhm. programme mhm. mi ngi ci waaye pour wane ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo yor yàlla moo ñor yàlla suñu borom subhanahu wa taala liman jaa abil ayaati ruslun taxaddamoo fanaaloo bi kal ayaati min zi tafaduli gis nga loo bëgg am maanaam jaare ko rabatina salaatu ala nabi loo bëgg boo koy def maanaam sunu borom subhaanahu wa taala defal la ko. pour xéewal nag lépp mi ngi ci yoon ci saa wax nañu waxu wér xaalis. mais leneen loo xamante ne mun nañ ko jëfandikoo. te du la du la lor wala du la mbóot yi duñ ñëw. waaw wala jinax yi duñ ñëw. wala kañe yi duñ ñëw. waaw ah, ah, ah. <laughs> bu yomb boo xamante ne méttiwul. falaa duñ jëm parce que dama ni ñooñu. ñii wér di di ko def ci duy dañu yàkkam di mhm. waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mooy lépp yàlla nangul na ko lépp. Mhm. pour man ma gis ni allahuma salli. على محمد وعلى ala ali muhammad wa sallim lan nga am sa teraanga am yiw ko xamne ne tey yàkkamtiwuñu ah daru yàkkamti rek mais dang ko côté de dang ko côté ubbi ko waw bo lim la rek parce que loolu seigne be koy ubbi seigne be koy loolu mom seigne be koy ubbi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim waw parce que da fay salatu bo xamne waaw salaatu bu am doole la mm-hmm. ndax bépp salaatu bu mu mënti doon ba ci salaatul faatiha yi mm-hmm. boo koy liggéey it doo ñàkk dara salaatul lummi tay boo nit doon tukki sax indi ko ci yow ndax salaatu kenn du ko delloo loo ci def jooni jooni la wallaay wallaay mooy salaatul lummi yi nit bu bëggoon a tukki wala muy dem di ñaani visa maanaam visa mm-hmm. Amérique lu muy jafe-jafe passeport bi ngay jël rek. Yves doo ko bu ci nekk. Yves ko boolee sa copain boobu. sa boobu. waaw. te keroog bi may def bi ngeen di def émission ni nga ni fu ne dem na fa gunge na bu ne mu tukki waaye moom ah, dem <laughs> il faut rek à Taba <laughs> yóbbul nu Taba Europe tukki <laughs> booba salaatul lummi rek uh-huh. boo ci ndeysaan moo tax yonent sa salaam kenn du moom mm. gis nga salaatul lu rek paas bu ci nekk nga di ko def mm-hmm. ëpp ëpp beneen def daal di koy jël nag des sa poos boo génnee nga saraxe gerte kemb. Mhm. est-ce que. waaw sara saraxu kumpa nga koy def nag. waaw ne kenn du xam ne gerte euh, kemb la. Mhm. nga ñaan si. Mhm. nga dem. boo demee kenn du la gàntal. boo demee da ngay am. waaw nga xam ne salaatu rek ci dooley salaatu. dafa nekk loo xamee ne moom takooful balaa. wal xanaa war a da day dàq balaa. di dàq alkande di dàq coona mhm. moom salaatu ala nabi macha allah boo demee ci ala man sëriñ bi andi na ko fa ay yooni yoon mhm. waaye tamit ba tey am na ñuy jaar ci yoon boo xam ne yaa kumti yu mhm. du kumti yu de kumti yu yaa kumti yu mooy xaqiqatu ummu Moussa waaw boo xam ne boo koy liggéey doo dara dëgg la boo ko bindee tamit ay lim doo manqué dara ndax tur bu doy waat la tur boo xam ne boo déggee ñu naan ummu Moussa muy dafa bokkoon ci tur yàlla joxoon way juru Moussa yéexoon di ko sikkar labbe yi ak mhm. nga xam ne ku ko am bu wet doo ñàkk dara muy kumti yu boobu mhm. ndax keef bi dafa jàpp kaanat xawaaridan min fiddatin xadruha taqdiran mim mhm. bi jàpp maa xalaxallaahu samaawaati wal arda wa maa baynahuma ilaa bil xaq taa bi jàpp taasiin miim tilka ayatil kitaabi mubiin yaa bi jàpp yawma tubaddilul arda xayra ardi wa samaawaati wa barazoo lillaahi waaxidul xaxa muy kumti yu gis nga yaa kumti boobu boo koy wedd booleeg nag maanaam turu raw xaanam biñ naan tax a kayaa ilu moom i 79 jàng ñaan ba wala nga jàng sooratul xuraysi ndax moom quatre-vingt euh, soixante-dix-neuf araf la mooy sooratul xuraysi nga jàng ci juróom-ñaari yoon rek wala 79 moom it boo koy def subaat ngoon doo ñàkk dara ndax kumti yi boobu mooy 79 la ndax keef 20 la miim 40 taa bi 9 yaa bi 10 muy 79 léegi 79 fois 2 moo lay jox cent 158. moo jàpp allahu muhammadu ñu naan am la xala maaxudu. di ko sikkaat moo it yaa am la xala maaxudu mooy allahu muhammadu rek. maanaam nga xam ne doo ñàkk dara. léegi nag fois léegi 79. fois 9. moo jàpp 711 moo jàpp wa jaxaltu loxo maalan mam doodan. nga xam ne loolu aaye boobu xam nañ ko ci wërsëg. kon am na ñu koy def 711. léegi 79 fois 13 boo ko dar boo ci ahad. moo lay jox 1027 muy bismillahi rahmaani rahim. dëgg la mhm. léegi nag 79 fois 16 moo jàpp euh, maanaam euh, Muhammadu alxaazini li maalillah mhm. kon ku koy sikkat doo ñàkk dara. Mhm. mu nekk nag tur bu doy waar di tur boo xam ne nag kumti bu doy waar la boo xam ne ku ñu ko bindaloon nga di ko sikkar boo ko sangoo. ci yi. bayre tubaab moom tubaab yi moom lu ñu am dañ la koy jox. waaw loolu. muuru muuru yi de war na la seet. am na solo kon nag xam naa ne. Mhm. sama gars yi nekk ba bitim réew. Mhm. loolu soxla nañ ko ñoom Zal Anelka. ndeysaan ah, ña nga ca mhm. Washington. danañ ko soxla. Ah, ñoom Ousseynou Mbaye. ña nga ca Amérique danañ ko soxla. ah gars yi nekk bitim réew. ñoom Ameth ah, wax dëgg yàlla France. dinaa leen jox après numéro am su ko defee ngeen mën a jox ko mu jox parce que secret ko wax wax ci télé dina am xamante ne code la. dëgg la code la wallaaw nga woo nit ki. dëgg la wallaay wallaay wallaay. donc Ahmadou Bamba ngi koy nuyu. Mm-hmm. moom ak euh, waa Dakar dem dikk yëpp ndax ñoom sax ñuy bàyyi xel foofu ca euh, terminus bu Liberté cinq bu Dakar dem dëkk ñu ngi koy nuyu. Ah, di nuyu suñu xarit yi nga xamante ne ñoom tam ñu ngi ñuy bàyyi xel actuellement ci Facebook bi um boo beneen question balaa ñuy jàll. parce que mbirum rap aussi bëggoon naa ñu waxtaanee ko. waaw hmm. nga mbirum rap. waaw ndax léegi léeg nga gis nit def dara nga xam ne kii li muy def nii du moom. la muy wax du moom. yow danga bokk ci ñi am xam-xam da liir sama xel. waaw ñàkkuma ko de ah? ñàkkuma ko de. da bi loolu dafa sonal nit ñi. Mm-hmm. waa rab dafa nekk lu doy waar. Mm-hmm. Mm-hmm. bari na lu waay ñàkk te moo ko ko xañ. te bu fekkee ni dafa nekk ci nit dëkk ci jëmmam. bu demee ci sëriñ wala mu dégg ñu ne yaa yu kat ku ko bind. sa aajo faju ku ko def sa aajo faju moom boromum rab boobee nga xam ne mhm. rab ba dafa dëkk ci moom mhm. bu jëlee saafara bëgg ko sangoo rab boobu dañ koy solal mbub mu mel mbubu mbuus si baatin mhm. nga xam ne la muy sangoo du àgg ci jëmmam ba di ko fajal aajo ko defee mu a sëñ ba xamul dara dëgg la moo tax mag ñi daanañ jël fatiha jinne bobu ñu naan nayma in naylan dalalan <laughs> manam ba ci amis bi amis bi mm-hmm. nga xam buñ ko na def dañ koy bind ci kayit la ko ñax mu fekke daw mm-hmm. jox la ko nga suuro ko ba ñak toy xet mm-hmm. rabba dañ ndax suuro fa mi mën ag la bu ko defé bu démé nak nga mën sango la ngay sango aajo faju moo yi ñoo and manam sangu suuro saraxé sikkar sangu suuro saraxé sikkar yooyu mbir la mm-hmm. léegi rab boobu nag dafa nekk lu doy waat mm-hmm. ndax bëriwaane na tey léegi bëriwaayu rab yi léegi dafa gën a yokk mm-hmm. ndax boo xoolee tey ni doomu aadama yi soxoree benn soxor gi ne ci ñoom sëy yi tas ak yooyu yëpp moom la ndax bu njëkk sunu mbokk yi euh, lébu yi maa ngi leen di nuyu wala ñu nekk ci àll bi dañ daa bàyyi benn espace boo xam ne espace rab la wala jinne ji ñoo dëkk foofu ñu ne kenn ko laal ñu mhm. bàyyi ko fa mhm. waaye léegi nag xataa jamono dafa tax lépp lañ dëkkee rab yooyu na bi ñu duggee dañoo dugg ci nit ñi mhm. moo tax léeg-léeg nga dugg ci biir kër fekk benn saal bu toog rek bu ñu toogee rek mooy li nga wax rek nee ma jàkk di ma xool ndax bu ma nee euh, asalaamaaleykum ñëw toog rek da ngay gis mën naa xam ñetti borom rab da ngay gis ñu tàmbalee yollee ko di dem boo may maytu ñetti nit a fay toog ndax boo leen xoolee ma xool leen rek maanaam jinne bu nekkee ci bu gisee ku ko mën a faj rek day yolleeku day dem mhm. maanaam du ko jublu parce que day daw mhm. na day xam ne yow mii gis nga ci kii bi nga xam ne li ko waral nag mooy léeg nga gis mënoo xëy suba ba ngoon yor sa oto mhm. di ko dawal ci mbedd Dakar yi te doo gis morom bu xeex ak moromam ku xeex ak moromam génn deretam nga xam ne rab bi ko dugg bu soxlaa deret li feek maanaam defoo tojaange wala tey nga attaqué kenn defu la dara nga xeex ak moom te booy xeex moom génn dara rek ngay bëgg loolu gis nga ko mooy waral nit naan tey dinaa rey nit tey su ma moytu dina rey nit te day nekk koo xam ne daawul siggi xool nit ñu naan tax mhm. ah, diw mii de bett nañu diw mii nu mu ko mënee gis nga fi koo xam ne mhm. maanaam jëloon na bakkanu collègue mhm. am Mm-hmm. bi mu doon liggéeyanteel ci ay ngénte doom ak yooyu noonu mm-hmm. di ñaan kooku tamit sunu borom subhaanahu wa taala yërëm ko ta xare ko aljana waaye nga gis ni waaw mm-hmm. mooy nga gis jigéen ju bëgg jëkkëram soode ko yooyu yëpp maanaam jinne day def loolu dugg nit rabam def loo ko lu mu tay nga gis ko àgg ci doomam wala iyaazu billah nga gis koo xam ne xale bu ndaw ñu naan moo ne daawul sig bi yooyu noonu def def yooyu moo tax dañoo si jamono joo xam ne lu waay mosul doyut dëgg la gis nga rab nag nekk lu doy waa bu nekkee ci yow nag bu soxlaa tox yooyu ñuy aye foo nga dem toxi ah. mhm. bu soxlaa maanaam maanaam xam nga yooyu ñuy tox nag waxuma cigarette sax poonu baatin bi bu diis bi waaw bi xale yi tuddee poonu baatin bi mooy bon bi waaw mooy mooy poonu baatin bi <laughs> sumakaani da koy dem sumakaani buf seen alal la buf si buf sumakaani buf si waaw non ñu naan ko poonu baatin uh-huh. léegi nag bu soxla bu ko soxlaa da ngay gis kooku dem wuti ko mhm. bu soxlaa maanaam ndoxu ndoxu baatin bi mhm. Mhm. ndoxu tubaab bi waaw mu dem wuti ko ñu naan ah moo ne daawul si gën xool nit nekk fi dem mhm. fekk moo koy def loo ci moo tax rab dafa nekk lu doy waar loo xam ne mais mag ñi nag li ko daan fajee mooy dañ daa jël xaatim boobu ñu naan batadun sax jun waax muy xaatim bu bu garaaw bu doy waar boo demee ca silkul jawaaxir fi axbaari sarairi kenn du ko tudd nag te sa xel du dem ci Serigne Modou Kalaam waaw ndeysaan généralu mm-hmm. Bamba nit ku baax kooku bàyyi sëñ Ahma bàyyi sëñ Kudus bàyyi sëñ Ousmane waaw mm-hmm, ne mm-hmm. circule boo demee Serigne bi am na fu muy lim umul sibiyaan nga xam ne dafa am maanaam nekkaale rab bu ne ci moom mu ne da jël sootul buróo ji soo ko bindee ba mu àgg nga jël xaati mu batadun sax jun wax boobu mm-hmm. nga boole kook moom jox ko ko mu jëfandikoo ko dana ko tàqaleeg lépp mm-hmm. léegi batadun sax jun wax ni tax mu garaaw xaatim mu musallas neuf buntu la mm-hmm. doomu aadama neuf bën bën moo ne ci moom mooy banni aadama chiffre neuf la loolu tax mu garaaw li tax yàlla di ko doxalee lépp secret bi mu ci def mooy doomu aadama sax neuf bën bën la am ñaari ci suuf ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar mm-hmm. juróom ñett juróom ñeent mm-hmm. muy neuf mm-hmm. yoo xam ne doomu aadama bu génnee àdduna yooyu la ñuy fat am na sax ñu koy conteste naan waaw maanaam kii yeeg yooyu man leen foofa même jigéen sax balaa bënn yàllaa ko xéewale maanaam kii ba muy am doom bi. kii pour mu leer mooy mooy ween tuuti waaw waaw kay fii fii fii meew mi di jaar. <laughs> waaw kay mi ngi noonu. xam nga boo nee kii noonu rek. waaw xam nga boo lu muy wax nii. <laughs> waaw fii mooy guddi gi. <laughs> waaw mooy guddi gi na leer rek guddi gi waaw. kon guddi na. kilifa yi liggéey waaw ñëpp a koy seetaan moo tax dañuy leeral rek. waaw jubluwuñ ci lenn nag lu dul yee doomu aadama yi képp te yàlla. am na mag ko wax am na mag mu ne bu mm. yàlla jékkoon jékk rek. jël mm. euh, bëccëg def ko guddi def ko bëccëg. ndeysaan dem si yàlla si coon euh, sekk. moo ko waxati woon waa ndeysaan ñu ngi koy ziar di ziare waa di sekk mu baax mi di doomam waa lu am solo la wax maanaam bu fekkoon ni yàlla dafa jël guddi rek def ko bëccëg dana bëri sutura yoo xam ne ko dana jib waaye waaye bu la ib dugal de guddi gi gars yi dañ koy seetaanaat bëccëg <laughs> waaw waaw kay ñu ngi naan dañ koy seetaanaat bëccëg <laughs> waa nga gis ni léeg góor ñi da ngay gis góor ñi xam góor amu ko léegi jigéen moo ko am mu di ca génne dara waaye bu demee ba fer sax dootul génn gaal kon foofu du bën bën boo xam ne bu faatoo dañ koy saaj dañ koy dañ koy sañ fépp fu ñuy sañ mooy neuf bën bën yooyu léegi nag moo tax musallas xanaa xamoo ne xaate mu musallas mën a nopp mën a jàpp nit mën a tasxiir nit parce que neuf la doomu aadama boo xam ne am na neuf bën bën noo def maanaam da koy jàpp léegi ba tadun zax jun waax boobu nag boo ko addadee daf lay jox 45 mooy aadama 45 neuf la rek waaw léegi nag bu ñu jëlee alif bi mu jàpp ayatul kursi wala aba ahadin min rijalikum baa bi maanaam aaya badixu samawati wal ard jéem bi aaya jaaxilul malaikatu léegi del bi aaya daxwaaxum fiiha hal kubéer bi jàpp aaya xuwal awalu wal axir léegi waaw bi jàpp aaya waradallahu lazina kafaro léegi zaay bi jàpp zuyna linnaasi xee kii xaa bi jàpp xee mim xayn sin xaaf taa bi jàpp taaxama anzalna léegi gis nga xaatim boobu mu lu ñàkk fay noonu nga di ko gis mu naw mhm. doole googu la am léegi mag ñi nag bu ñu masaan a indi borom mu rab wala dof boo xam ne dafa am lu ko dikkal ba muy dóoree mhm. xam nga ku fukki nit di jàpp ku mhm. mel ni man ni ma toll macha allah tey bu ma demee ba fukki nit di ma jàpp mënuñu maa kii am na lu lu ma dugg loo xam ne dooleem la parce que dooley juróom fukki góor yàlla soixante-dix góor yàlla mooy benn dooley façonnaaru góor dooley juróom fasu naaru góor soixante-dix fasu naaru góor mhm. dooleem mooy benn doole jinne waaw moo tax nag bu du nit rek rab ba mhm. maanaam tey kenn du ko jàpp toj lépp lay def ñu takk ko ba mu dëgër mhm. pour mu bañ a dóore waaye nag bu ñu masaan a indi lu ñu naan diw de bu ñu ko indilee dof danaan yeewil yeewi leen ko ñu yeewi ko mu mu ne mu toog yaru muy wax ak moom fekk ne dañ doon bind xaati mu bata duñ sax jun waax mooy tënk nag jinne ji ne leen yeewi leen bu ñu yeewee mu ne bàyyi leen. ko bàyyee sëñ bi mbaa du la fekk foofu mu naan mm-hmm. ba moo ko tënk. Mm-hmm. ndax ba ta doon sax jun waax la. Mm-hmm. léegi nag bu ko defee nag da ngay gis mu daal di doxal boppam ba ñëw ba ci xaatim bi. mu toog ca farankulaay jàkkaarloog yow. nga di ko laaj eh, yow loo jotee kii ba di ko dugg. da ko dul bàyyi. mu naan la ah man day li tax ma ànd ak moom. mooy maa ngi xamee ay mbiram ba mu nekkee ca biiru waajuram mu neex ma ma ànd ak moom parce que biddéew baa tax mhm. am ñoo xam ne tamit boo misaanee seen tur day jàpp wayan 818 wayan surukallaahu nasan azizan mhm. nga di ko misaanaat day ñëwaat ci 53 moo jàpp jinne mhm. moo tax jën ak jinne moo tax naa ko jën boo gis am na kuy jinne yu ko yor di ko gàdde ah, ñeenti kuy jinne sant waa wajeng, Dieng waaw waa Dieng moom keef la waa jenn jenn moo ko jàpp ndax wax nañu Serigne Touba radiyallahu taala anhu mës nay bind maam Cheikh Issa Dieng lettre borom jenn ak lagar borom jenn ak lagar waaw di ziare sëñ Abdou Latif Dieng sëñ Abdou Latif xalifa waa xalifa di ziare sëñ Sidi naan naar Dieng maanaam ci macha allah xal tabaski yi ak jàmbaaram ja ak njabootu mm-hmm. maam Cheikh Issa mm-hmm. wax nañ ne bi ko Serigne bi di bind rek xel mi dem ci jinne waaye nag maam Cheikh Issa Dieng guddi ga yëpp jinne yu wër ko maanaam fanaane koo wër ba bët set bi mu demee ci sëriñ bi rek xëy si rek jaaxle dem ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko ah Cheikh Issa ñu ngi jégalu ndax bi ñuy lay bëgg a bind bataaxal bi ñu eggee ci jenn suñu xel dafa dem ci jinne mhm. ma xam ne bu buñ ko àggale woon nag ñu lor la moo tax ma yemale yéen foofu loolu dong la waaye du dara laa ilaaha illallah léegi nag maanaam jën ak jinne dañoo bokk yàq mhm. mais dafay am ñoo xam ne boo leen misaane rek maanaam day jàpp 53 maanaam xalaaxa boobu lañ am ak jinne looloo waral dañuy nekk boroomu jinne yoo xam ne léeg-léeg nga gis ñenn ci ay nit ñi saa bu ñu toogee ba mu yàgg day mel ne dafa am lu leen tiim mm-hmm. wala lu ñuy kii maanaam janeer mm-hmm. bu ñu gestoo duñ gis si moom duñ gis dara mm-hmm. fekk na jinne yee leen di wër bëgg leen léeg-léeg may leen alal yoo xam ne léeg-léeg ñu jox leen loo xam ne léeg mu def jox leen ay xam-xam loolu yëpp parce que jinne moo tax jën tamit ak jinne ñoo bokk yax jiim ak nun muy cinquante trois. macha allah moo jàpp Ahmad tamit. nangam mhm. lo bëgg a laajaat. moo Ahmad. Ahmad. Eh, dañuy mhm. faral di wax señ bi. Mhm. jigen ñi. mën na né amna ci ñenn ño xamni sey jafé wu len mais tok fa mo len jafé tok ci sey ndax jinne la wala njabar lay doon. wa lé lay njabar dana ko def manam ñu def la lo xam ne ca téere may tuddu nak batuta. ya batuta saxta mu nekk loo xam ne li tax sax téere bu doy waar la boo xam ne xam naa bi ma ko tuddee sax am na mhm. ñu dar seen gémmiñ parce que Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma dana xam-xam xaw ma bokk ci mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala bi siin mhm. jar na dem ba siin ngir sàkk ko kon xam-xamu diine taxutoon doon la ndax bu doon xam-xamu diine la mooy madinatul xilmi waaye Seydina Ali mooy baabul xulóob kon nag ku dem ba moom mi madinatul xilmi Seydina Ousmane euh, Seydina Ali di di baabul di buntub xam-xam mm-hmm. mu ne jar na dem ba siin kon xam-xamu diine ndax chinois yi dafa am xam-xam yi leen yàlla may ni ko mm-hmm. Inde yi ni ko ñeneen mm-hmm. te xam-xam moom dafa am solo xam lépp a gën wuute kii maanaam umpale ko ndax jamono da koy laaj ndax ñun dañ ñoo fekk si suñu domaine ñun julli bi maanaam jël ko ndax boo xoolee rek tubaab yi dañuy def douzaine lañ koy def tey mooy douze mim yi nekk ci faatixatul kitaab boo demee ci téere biñ naan mawlidu zamxaan mawlidu bi nga xam ne sëriñ Modou Dem bu Njaareem moo ko bind muy téere tafsir boobu mhm. ci wolofal maa ngi koy ziar di ziar njabootu sëriñ Modou Dem bu Njaareem mhm. mi ngi nettali rek di wax ni maanaam douze mille yi ci faatixa ma nga ca saraaba moo waral tubaab yi fonk ko lu ñuy def ñoom douze lañ ciy def mhm. muy siifu douze boobu muy douze mille yi ci faatixa te loo def looy tàmbali def ko douze rek yàlla dana ko barkeel bu dee bitik nga jël bëgg ko chargé fexeel ba la nga fay njëkk def na nekk siifu douze macha allah léegi nag nga xool nag mhm. maanaam loolu yëpp mhm. léeg nga gis nag jigéen joo xam ne dañ ko njabar ba mënul toog fenn mhm. ndax ñu defee ko ba batuta sax taa yonaan kii daal lu toog benn sëy waaw moo tax nag gis nga fu mu sëy tas dem yoonam sa lu jiital jiital yi ñuy jiital jiit jiitloo nañu koy denc te du ko sutural mag ñi daawoo ko gis seen gis yi ñuy gisee ngant daawoo ko gis te léegi da ngay dox ci mbedd yi sax maanaam di ko for na mag ñi dañoo amoon sutural te dañoo sàggan ci yooyu nag mën nañ cee jël ba def ci jigéen loo xam ne day gis ngant rek te du bàyyi ma nga ca batuta am loo xam ne tamit da ngay def jigéen ji mu bañ a am doom ma nga ca batuuta wala nga def doom loo xam ne eh, mm-hmm. jigéen maanaam sa wujju rek wala xiyaasu billah wala nit noonoo la mm-hmm. am na loo xam ne buñ ko jëlee ci yow da ngay jur doom joo xam ne day jël alal doomu aadama yi ñun ñu di ko maanaam dóor ak wala mu am doom joo xam ne malformation mm-hmm. na am na benn mala am na benn cër ci xaj mm-hmm. wala benn mala boo xam ne moom la ñuy jël boole ko moom gis nga ko booleeg moom mm-hmm. da ngay gis benn xale boo xam ne da nga koy rek mu am benn mala bu mu la nuru ngir malformation da ngay xam ne lii moog loolu moom la loolu nag gars yi ñu koy defee maanaam ci batuta saxtaa muy téere bu doy boo xam ne am na loo xam ne boo ko jëloon mhm. bind ko mhm. maanaam euh, daal di koy daal di bind sootu yaasin mhm. salmoo ko wedd loolu ci tur boobu hmm? daanaka boo ko salmoo wedd loolu guddi gi lu sa dëkkandoo yëpp def bu bu ñu xëyee mën nga leen koo wax da ngay gis lépp ma nga ca téere ba ba noppee tamit jamonoy xaru géej gi maa ngi koy nuyu alaaji <laughs> kunkande waaw waaw ko baax nga alaaji kunkande jamono ji muy wax xaru géej gi sax maa ngi naan la ah am na lu ma gis de lu ndudd ci loo xam ne nag waaye batuta boo koy liggéey sa bët dafay bëla mm-hmm. ndax am nañu jamono ji ma koy liggéey nag carrément li mm-hmm. ci dox ca mm-hmm. batuta nekk Casamance ñama fa daa fekk dañuy gis ne sa bët dafa bëla waxoon naa leen ko ne xam ma nag lanti waa ji ne bëtam yi bëla na lool dama xamul ne lanti la dama xamul lu mu doon waaye boo koy liggéey te am ijaabaam dana uh-huh. mel ni bëtu tubaab nañuy mel sa yaram bi nag day mel ni wurus uh-huh. moo ci nekk ndax jamono jooju téere bi uh-huh. dafa am ku ma ko joxoon ma jël ko di ko di ko sikkar nag booba lu ne ngay laal maanaam bi ma jëlee di ko sikkar nag maanaam lu ma ci gis la dama koy essayé mais dafa am loo xam ne boo ko bindee da nga koy def saafara jël morceau bu ñuul wala kurus bu ñuul wala bant bu ñuul maanaam jël ko xooj ko ci wala nga def ko ci diiran wu juróom-ñaari fan di ko wedd mm-hmm. boo ko dindee boo ko sànnee day nekk jaan ci bëtu nit ñi mm-hmm. waaye boo ko tëyee nag du doon dara ci bëtu nit ñi rek la mm-hmm. waaye it def na hallucination comme bi di def waaw waaw mi ngi noonu waaye nag ci ci ci ci tarjumaan ja nag ñoom ñoo lay wax naan la mooy yet ba yonte yàlla Moussa yoroon mën nga cee sànni mu doon jaan <laughs> léegi nga mën caa xar géej géej mm-hmm. mën caa def yooyu nangam te fekk na lii ay midi mooy 21 la mm-hmm. léegi nag yow boo jëlee sànni mu doon bu ñu la koy jaayee moom mooy xaj waaw mu ñu noonu waaw kay mi ngi noonu léegi nag mm. bu ñu la ko xooyee mm. dañ la koy jaay dañuy ñëw rek ne ah suñu maam Cheikh càmbar nga nit ñi wuy si nañ la mm-hmm. waaye boo ci boole woon lii nit ñi wan da nga leen wan rek ñu gis mm-hmm. léegi nag kaay ma jaay la lii ñu sànni ko mu nekk jaan yow da ngay bëgg ba mm-hmm. ñoo la cay dig nag mën nga caa xar géej kaak mën nga cay def nanga ma ne ah sa waay day courage bii mu àndal est-ce que dajay yi rek te xamuñu loolu du dara ndax man def naa ko dem naa am ku fa nekkoon rek di jombal gars yi ñu naan sëñ ak ay nangam parce moom rek la yoram da ko tarbiye ba jot ijaabam léegi moom it mu dégg sama tur nag ma ne nak nag kooku ngeen ni kooku ngeen di wax muy sëñ maam Cheikh yemu ma ci we te bu mënee nag indi leen ko fi wala ngeen yóbbu ma ci moom ma ñu wax rek comme jamono tuuti sama yaram gaaw na tàng man leen fu mu nekk ñu wax ma ko ma ne ko maa koy fekk su ma ñëwee wan ko ne ko du ma sama ram ma ñëw seet ko bi ma ñëwee est rek mu daal di sànni kurus bi maanaam mu nekk jaan bi mu jaan gaa yi fallaxoo ak yooyu noonu damaa ni ci bi rek mu nekkaat kurus ma sànniwaat ko ko ne ko bàyyi sa gone yi ngay def ñoo def ak batuta yooyu du dara mhm. léeg-léeg nga gis koo xam ne tey bu jëfandikoo batuta boobu ci sootu yaasin mhm. mën na nekk fii yow nga nekk Europe mu ne la yee eh, fayal sa cigarette boobu mhm. wala dajak yow rek ne la sa poche bi nangam a nga ci nga eh, nangam daal di yëkkati yëpp jox mooy ñi seetee téléphone comme ci rajo yi ak yooyu waaw sa poche bi am na lu ci nekk sa poche gauche bi jox ma nangam li ci nekk nga dof nga daal di ne kii ko te fekk kii ponkal la. borom nga ni ponkal baa ngi nii rek nangam. am na nag ci baatin. dégg na loo gis rek fals bu nekk. am na ci na fals am na ci kilifa yoo xamante ne. dégg na mus nañu mës nañu nettali ci benn kilifa ci kilifa yi. Mhm. dafa am koo xam ne dafa nekkoon ci jamonoom. ci mhm. benn dëkk. Mhm. di jommal nit ñi ci comme yi ngay wax nii. teg mbaam. waaw di di jaar ci ginnaaw mbaam bi di génne ci gémmin bi. ñu yaakaar ne waaw ndekete kilifa. mu ngi taw di xool. Mhm. ñëw ba ci moom am lu mu def. waaw da nga waaj day jaar ci kaw mbaam bi moom di wàccee ci kanam mais nit ñi li ñu gis mooy ci biir mbaam bi lay jaar. di génn ci gémminu mbaam bi. waaw ci leeral seen bët waaw. waaw ci demukaay wanag bi di jaar si gémmin gi dañuy mm. yaakaar fekk na ci suufu mm. tànk suuf yi <laughs> ginnaaw ji lay jaar di génnee ci ginnaaw léegi nag bi mu muree këstu bi nag. Uh-huh. ci raay bi. Mm. ci waxul jaa alxaq wa zaxaxal baatila innal baatila kaana zaxooxa. xanaa xamoo ne loolu boo ko defee ci njabarkat yàq nga ay yëppam hmm? ay yëppam hmm. moo tax ñu naan xam-xam jarul bàyyi bàyyi ginaar am na ko ñu doon wax bàyyi ginaar hmm. kooku moom da doon rendi ay ginaar am dëbb-dëbbal yi mu ci def rek ci batu nit ñi ne rey na ko mais rey ko mais bu defee dëbb-dëbbal yi rek loolu mboolem ñu nekkoon Pikine ak ñenn ñi xam nañ bàyyi ginaar ku si woon la léegi bu ko defee bu defee ay dëbb dëbbalam rek dóor ginaar gi jóg waaye moo tax doomu aadama lu foor la muy def yàlla di ko jay rek te xam-xamu midi mooy 21 yooyu moom. Mm-hmm. yàlla la ciy jay. Mm-hmm. yalla di ko jay ñu koy jay di ko jay ba mu osé nag ne ah comme man. Mm-hmm. war naa mën a jël nag benn xale rey ko léegi. Eh, def samay dëbb dëbbal waaye bi mu rayee xale bi. mbooloo maa ngi ko wër nag ñëpp naan mooy bàyyi ginaar dana ko lekk gars yi ren na xale beeg yooyu. moo daal di jël def la mu doon def ginaar ga mu jëf. وعيدهم آدم ولقد ذكرنا بني آدم وحملناكم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ما تيعلو دفا ترى دوم آدم نيتك نوبام ما تفاي ياك يا خمو لي خيو لغي نك موم بيمو دب دب لي دو دو دو خالي بينا نيم ni ñang ko wër rek di xool mu def def def def def xale bi na neem mu répété ko ay yoon yoon xale yi na neem mu jékki-jékki rek wax ñu nekkoon day joor pousse leen nii jinne ji bu ñëwee fii lay aw gaa yi afal mu daal di wax ñu nekk ci càmmoñ pousse mm. leen jinne ji foofu lay aw ñu afal rek saa waay teg ko ci <laughs> ah, gaa yi jàpp ko rek uh-huh. ba jàpp ko dóor ba mu faatu rek mm-hmm. yooyu yëpp nag mooy mm-hmm. karaamatul xayn mm-hmm. moo tax gis nga xa dafay lépp gis nga nag yooyu noonu yëpp jaar nañ ci pour découvrir rek xam xam-xam nax boo amul batuta ñu nax sa nit dëgg la ci borom batuta ndax léeg-léeg nit ku jommi ci nit loolu waaru ñëw mën na xëy mhm. da koy nax mhm. xanaa nangam ak nangam ak nangam ak da lay nax xanaa nangam ak nangam mu ne ma waaw léegi yow boo ko xamutoon noo koy mhm. euh, maanaam kiiwee doo ko mën a wax lu dugg ci noppam ndax danaan da ngaa jalousie rek parce que sëriñ nga def laa gën a aay waaye nag boo ne ko loolu muy def muy wax nga def ko ci kanamam na ko bàyyi ko ci yëfi gone lay def macha allah numéro maam Cheikh Fall xilmul misaan ñi ma koy laaj ñëpp mooy 77 374 22 72 77 374 22 72 ah soxna Khadija si. mu ngi ñuy seetaan ah, nee na mu ngi lay ziar bu baax a baax. nee na macha allah kontaan na ci waxtaan bi. Ah, nee na émission bi neex na te xam-xam bi leer na. waaw émission bi neex na te xam-xam bi leer na. te ni ko waxee noonu la ko ñeneen ak ñeneen waxee ndax mu ne. Mhm. kii sunu xarit la nee na kii moom gëm naa ko. ndax wax ji teey na te neex naa dégg. waaw donc ñoom ñëpp ñu ngi apprécier émission bi macha allah. Mhm. di leen euh, nuyu euh, sunu xarit fàllu euh, borom greffage yi jaaykatu greffage bi moom sunu xarit la. Mhm. borom oto yi borom parfum yi. Mhm. di xale bu am jom boo xamante ne mu ngi ci réew mi. bu ko neexoon nekk ci yeneen waaye moom. lu mu gis ne war na cee mën a am dërëm rek mhm. ah, ma nga cay daw mhm. ah, nekk ci greffage yi nekk ci oto yi nekk ci parfum yi mhm. te xeebul dara donc fàllu maa ngi lay ziar ma nga fële ba parking euh, ca Liberté 6 ñu ngi koy nuy bu baax a baax euh, Pape photographe aussi jërëjëf kontaan nañu euh, ñu def benn tour de table rek ku nekk bàyyi benn question wala commentaire ah, ñu laaj ko ko doog a doog a tàggatoo Mbalia aussi moom tam mu ngi ñu bàyyi xel moom tam bokk ci équipe bi. équipe guddi gi nuyul ma ko Mbaliya. Mm-hmm. Mm-hmm. nuyul ko baax macha allah. d' accord Oumou boo amee question. Euh, ban secret aussi mbirum góor ñi tamit. góor ñi secret góor ñi. kic ah, kic gi. mooy nelawul waaw. mooy nelawul. doo nelaw guddi. Ah. waaye yanaamul. ah boobu doo nelaw guddi. waaw doo nelaw guddi. moom xam mag ñi dañoo amoon. mag ñi dañoo amoon seeni façon parler mm-hmm. Mm-hmm. dañoo amoon teggin mm-hmm. waaw daaw ñu jaar ci nelaw guddi waaw ñaan kii ñëw rek <laughs> ah, nelaw guddi de eh. nga ne ko ah, ah waaw daal di yëkkati jox ko <laughs> noonu ko doon defee waaw nelaw di mooy xubatu mais côté ngeen ko ba du ñëppay comprendre li ngeen wax de il faut moom bu rusee ma ne guddi gi dañ ko wax mu leer ñi nga xamante dañu am néew kattan maanaam kële ñi nga xamante ne affaire bi taxu ko baax mm. noonu mm-hmm. loolu la bëgg expliquer mooy doo nelaw guddi mm-hmm. góor bu ci am problème mm-hmm. ak sa jabar ndax léeg-léeg sa yi tas du ñu xam lu koy tas léeg nga nekk sa jabar ah, su ngeen su ngeen nekkee ci kanamu nit ñi di ree bu ngeen duggee ci biir kër gi coowaloo nit ñi naan pourtant léegi lañ noon ree fii coow yaa nga ca biir coow lool nag kenn mënu koo lijjanti ku dul maam Cheikh mii mhm. moom rek mën a lijjanti seen coow moo ci gaaw ndax yàlla dana war na sax naa ma roccee mhm. ma dindi mhm. maa fii su dóori xim li nga xam ne moo nekk ci seen xol min mhm. xim leen ci mbañeel moo tax daanaka couple boo ko jël rek jox leen ko ñu am nuñ ko defee ñoom ñaar maanaam euh, waaw mbañeel boobu daal waaw maanaam tuwarkal la dinañ jiboo kenn mënu leen a tàqale te léeg-léeg nit nag am soxna mu bu tàng jër waaw waaw loo def kañ mu ree loo waxit mu ree maanaam doo gis meram parce loolu sax dañ ciy jiboole ay famille mhm. ndax yàlla dana war na sax naa ma dindee ma roccee mhm. maa fii su dóori xim li nga xam ne moo nekk ci seen xol mhm. min xellil ci mbañeel mooy diggante nit ak patron am diggante jëkkër ak jabar diggante baay ak doom diggante ay doomi baay yu mel ni xajal ci moos ndax jàmm moom mooy lépp allah waaw garabu ndigg bi tamit garabu góor waaw garabu góor parce que ñu si bëri gis na ñoo xamante ne ay produit la ñu yor mais am na loo xamante ne nekk na ci alxuraan tamit waaw xam nga maanaam produit ak comprimé yi ñoo yem mhm. mhm. bëri nañu bëree bëri sax dañ fa jaaree sax mu wàññil leen dara mhm. ndax loo xam ne day dem sax ba boo ko jëlul doo mën lam la fekkoon sax nga di ko am as maanaam da koy jël dindi ko ba maanaam dootoo mënati dara léegi li fekk maanaam doo ko jël rek dootoo mënati moo tax dafa am ci secret mag ñi loo xam ne da nga daan gis mag ñi dem ba am ay quatre-vingt-dix ans di am doom mhm. wala bàyyi fi doom yoo xam ne mhm. bàyyi fi euh, maanaam doom boo xam seen ginnaaw la jut mhm. waaw ndax seen bi ñuy dem te magal seen soxna xale bu ndaw lay doon lañ leen daa may ñu wan loo da nga koy gis lu bëri bëri bëri na ci waaw loo xam ne ci gin seen ginnaaw parce que ñoom dañ ko daa faatuwaale sax waaw da nga ci gis ñoo xam ne daf leen di topp ba li ñu naan sangkatu néew na nekk ku maan waaw ñoo xam ne ba ba ñuy génn àdduna mm-hmm. yooyu yëpp da gis ni mm-hmm. du du mës a maanaam kii nañ dee bàyyi ko duñ ko mës a tële mm-hmm. loolu day day amaale parce que dafa am secret boo xam ne boo ko jëfee maanaam naan jublu penk naan da ngay jàpp ba set ba sell nag jublu penk naan ko moom xuwatu zakkar lay doon boo xam ne ila abat lay doon waaw du dañ mukk du dañ mukk macha allah doon booleeg bosu jasit Mm-hmm. waaye di ko boole yooyu yëpp am na mm-hmm. ñu koy boole ay graisse mbëtt ak ay nangam mm-hmm. nangam mais daal mag ñi dañoo civilisé dafa am yoo xam ne ay yu bëri sax doo ko def doo dugg sax ci yooyu parce que am na yoo xam ne mën na la fajal lii indi la beneen jàngoro waaw indi la beneen jàngoro da ciy am parce que maanaam kanam ni mu sensible mhm. nga jël maanaam leneen loo xam ne ay produit nangam mhm. di ko ci diw ak naan da koy boo ko diwee noonu da gën a nobal da nga ci day yokk li nga di ko ci diw mhm. loolu maara détail yi bëri nañu dem teer ñoo xam ne loolu leen yóbbu teer ak ay infection parce que léegi am na ñoo xam ne du ñu laal mbëtt seen xabixa mhm. maanaam da koy kii comme mhm. ñu naan ñii duñu lekk duñu laal mhm. aada yooyu dañ ko fa def fekk te loolu am la da ngay jël laal dara rek ñu jox la ko te du la wax lan la nga laal ko rek sa kanam gi yëpp génn picc dëgg la waaw fekk na yooyu yëpp fekk gënul ci moom maa farat naa fi kitaab min shay in gis nga alxuraan li mu mën su ma toogoon fii loo ma laaj ma répondre ci nangam damay faj léegi nangam bu yàggee ñu ne ah kon kii xanaa lépp lay lépp lay faj. Mhm. te fekke na ñoom dañoo gëmoon ni alxuraanu karim. du yow yaay yow maam Cheikh. alxuraan la. maa farat naa fi kitaabin min shay'in. te mhm. shifaa'un wa rahma. yàlla dafa jël alxuraanu karim. Mhm. def ko muy saafara muy sunu yërmande. sëriñ bi ne huwa shifaa min kulli daa. amul lu mu mënta saafara. muy tawat ndax ñàkk kër tawat la. bëgg jëkkër amoo ko tawat la. ak daa moom jël na sax feebar. lépp aajo bu nit am rek sëriñ bi neen alxuraan moom. dana ko saafara mu dem na sax ba ne wa man abaaxutu rida ja xasratin na nadam mhm. koo ko fi bàyyi dem seeti leneen di nga perte ànd ak réccu perte ba mooy jël nga sa xaalis weexle ko mhm. mooy perte nga mhm. te ji soo ci la nga bëgg wa dem nag mooy di nga rëccu ndax la taxoon nga di ko wut amoo ko mooy ñu jox la xale bu ndaw nga war koo maanaam nga war koo jébbale mais nag nga gis ni guddi googu mënoo ci dara. mu jural la kesta boo xam ne. Mhm. boo moytuwul rek ñu delloowaat ko. Mhm. wala nangam ak nangam mu daal di jékki-jékki ndax dañ naan jigéen moom am na mhm. lu ne. ci kër baayam la mu amul kër baayam ba di ko fa wuti. moom lay ko amul nga ko yóbbee mooy yàlla. Hmm? donte jigéen moom loo ñàkk-ñàkk ngor. la tollee foofu. tasal say bi waaw yooyu. wala nag maanaam mu yóbbee ko boo ne benn rek. mu teg sa baat mu ne la foofu macha allah euh, ñu jeexale ak ñaanu tamxarit bi lan ngay joxe baaxee ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy seetaan émission bi ndax ñu ngi ci bisu tamxarit déjà ndax dugg nañ ci bis bi muy njeextalu at mi hmm. ban ñaan lañu ñu war a mën a def ah. gannaaw lekk cere mooy neuvième jour bi waaw gannaaw lekk hmm. hmm. na ci li nga war a def mooy junnil ixlaas na ko ñëpp def baax na bokku na ci lewi say we mhm. dana tax ñak hmm dana tax manam ay béyeeg feebaru loxo yi mhm. wala xiyaasu billaa du la la laal mhm. baax na lol bokku na ci hmm mu may la hmm ngay mën di gis na natiru doomu aadama da nga war di gis say mbir lu jitu bu safan la nga hmm bu luy ñew la nga diko gis hmm bokku na tamit beut problème beut ta yalla na dogal do gumba ñu di ko def am na solo lool mm-hmm. bokk na ci raay bopp jirim mm-hmm. bokk na ci raay bopp jirim ma rek nga ñëw nag di ko raay nii rek. Hmm. jàpp ko di raay bopp ba. joxoo ah. ma. waaw man tam juróom ñaar 40 jours ci biir suuf. waaw ah, faale bu ma yàqal. walaay nan ma raay eggal yoo pare eggal yoo pare. walaay walaay jirim bu jigéen nga wax. waaw man jirim bu jigéen nga macha bopp jirim. Hmm. siyaare ji borom xam-xam. Hmm. siyaare ji borom xam-xam. ak siyaare néew ci siyaare ay almer. yooyu bokk na ci li ñu taamu. Mm-hmm. di bis boo xam ne nag bis bu yéeme la ñuy mm-hmm. fàttali ko nag Seydina mm-hmm. euh, Seydina Ousseynou Kalbala am na ñoo xam ne da nga leen di gis si télé yi bu jotee dañuy ñëw di dagg seen bopp di dóor mooy ngay gis si kii euh, télévision arabe yi maanaam ñu koy metti loo ngir rey boom bi ko boom moo tax ku tudd euh, Eh, Ousseynou ñu lay wax Kalbala mhm. kon nga gis ni tamit mu ngi noonu bisu naqar la ci jullit yi waaye mhm. bisu bànneex la ndax mhm. ñoo koy naqarlu woo rek waaye ñoom moom ku ne xam ne ni aljana mooy seen kër ndax deretu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la suñ ko tuddee rek siyaare mboolem ëxlu kunt yi hmm? boo tuddee rek tudd ko mooy seen maam waaw ñoom ëxlu bayti rasul lan ñoom ñi sant kunte kunta ñi sant ay dara it mooy seen maam ah, di leen siyaar tamit waa Nimzat di leen siyaar mhm. di ziare mboolem waa Njaasaan mhm. di ziare xalifa gi mhm. di leen jaal tamit xalifa gi nga xam ne barki dem waaw ndax diggante Cheikh bu Mouhamad Kunta ak diggante Serigne bu mag bi Serigne Touba ak diggante ma Sidi Alxaaji Malik ndax boo demee Tiwaawan am na étage bu ñu tuddee Njaasaan doomi Cheikh bu Mouhamad Kunta Serigne Babacar Si radiyallahu taala anhu yoroon na ko nga gis soxna Ami Kunta mom la seigne Modou Moustapha Fall mhm. taw mam seigne abdou Fall manam ki top ci taw bi sax premier khalifa gi mhm. na seigne Modou Fall Fall moy taw waye mom lañuy wax taw rek nak mhm. moy premier khalifa dafa yoron dua Cheikh bu Muhammad Kunta moy soxna Ami Kunta ñu am ci seigne Cheikh Fall Ami Kunta may ziyaare seigne mam Cheikh Fall di sama xarit di sen dom nga xamne ne mam Cheikh abdou Fall la tay sëtu Cheikh bu mohammed Kunta nga gis tammi soxna Ami mbacke mu seigne Modou Moustapha mbacke mom la xalifa général mooy seex Bou mu mel ni sëñ mm-hmm. euh, euh, Cheikh Bou mm-hmm. maanaam yoroon mm-hmm. waaw mooy xalifa général avant Cheikhal Bekaay di jël maanaam moo ko yoroon am nañu ay leer am nañu ay doom ña nga kon nga gis ne tamit ko tuddu sayidina Ali rek tuddaale mm-hmm. ahlu Kunta mm-hmm. di len siyaar mm-hmm. ak ahlu manam eh, Aydara yeb di siyaare Serif bakkar Aydara ci Tiwaawan di sama xarit ak mbolam ahlu Bayti Rasool kon nga gis ni dal bis bu mag la bis la bo xam dal bisu ñaan la di bis bo xam ne xat-xat boo mënaan bu bis ba talala sa loxo moy suba ci guddii nga ñaan sa soxla amna ño ñoo dañ koy wor wax ni yonti sallallahu alaihi wasallam nako wor amone yene nak ne maanaam bu ne danaa woot dixième jour ba mhm. muy gannaaw suba muy yow ma as yow ma asura mhm. jotu ko fee fekk mhm. am na nag ñuy mottali yéeneem googu noonu muy lu baax a baax yoo xam ne gëneelam xajul ci émission comme ñoo nekk ci jeexal waaye loolu rek maanaam ëpp na émission ëpp na waaye daal ay yonant yu bëree bëri yàlla xettali na leen maanaam ci bis boobee yonant yàlla yunus ca jën ba yonti yalla musa ci nonam ba Firawna mhm. yonti yalla yusuf ci ci kasom mhm. hmm? ba ba nopi tamit ak eh, tenam ba mhm. yoyu yep yonti yalla yanxoo ba ci gumbam ba ci la gis yonti yalla ayo ba ci la wer wa wax nañ ni ci la dal di bind sax asaman ak suuf hmm yalla bind saydi sayyidatuna hadija ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci la yonnati sallallahu alaihi wasallam jelon sayyidatuna Xadija macha allah waaw ci bis ba kon bis bu màgg la daal. kontaan nañu bi junni nga wax. waaw junni mil lay doon dafa am luñ koy ubbee ak luñ koy tëjee. waaw junni ci yonente saa salaam rek. Mhm. ndax yonente saa salaam moom loo bëgg yàlla bañ la ko delloo. mooy bunt bi maanaam ubbee ko salaatu ala nabi tëjee ko ko. Mhm. moo tax wedd sax dañ naan la defal istixfaar. Mhm. mooy njëkk a jéggalu suñu borom. ndax bàkkaar day tare ijaaba. day tare ijaaba boo defee istixfaar set si bàkkaar. nga julli ci yonent saa salaam loo ñaan sunu borom def ko. macha allah. Mhm. sëriñ maam Cheikh Fall gërëm nañu la. ndax te waxtaan bi am na solo donte amoon ay dog-dog. Mhm. waaye rattrapé nañ ko ci biir émission bi. lan ngay tàggatoo euh, laata may joxe waa sa numéro ndax ñu ngi moo koy laajaat. Mhm. waaw li ñuy tàggatoo rek mooy ñaan yàlla. def jàmm ci réewu Sénégal. tey ñaanal président Macky Sall jàmm. di ko ñaanal président Ousmane Sonko. ñu xamni tamit nañu ko def bo gis nañu ko waxtane waaw tay di ñaan jamm rek mo xacc ci rew mhm. senegal mhm. ñu xamni senegal suñu sunu senegal la mhm. di ziaré Cheikh Bamba Dieye waye di ziaré yit sëñ mam Góor jassaka mam Góor jassaka futur président momit it sama xarit sama grand la ko xamne mom ma sha allah sama grand la de tamit zéro la tayit niveau international su génnee rek tamit ñëpp xam nañ ko mhm. waaye tamit maanaam osé bi mu osé mhm. maanaam dëggal gi mu dëggal boppam ndax ba bokk ci réew mi nit moom la yàlla waxoon yonent yàlla mhm. Moussa laa taxaf inni la yaxaafu la dayal muxsaloon bu ragal man yàlla du ma ànd mu dëggal boppam ndax sénégalais la citoyen la kat la mu daal di xam ne nag jommale woo sa bopp maanaam doon président parce que nit boo njëkkul gëm sa bopp mhm. yàlla suñu borom subhanahu wa taala du la du la am na benn dëkk boo xamante ne président bi DJ la animateur la waaw animateur la mhm. waaw te waykat bi waaw mhm. waaw footballeur moo tax Sénégal moom gis nga moo tax boo déggee sëñ bi ne walay sa yujibul sawaadul gis mi sa faaxatul fataawa soo alfax mi nit ki nit ki sa ñuulub deer bu mu tax nga complexe ba jàpp ni ñu weex ñaa la gën mm-hmm. waaw kon kenn gënul kenn li gën mooy daal kii nga xam ne mën na mm-hmm. yor Sénégal rek mm-hmm. mën ko am xolam te yée nañu rek te utal nit ñi na ñuy lekk nañuy naan nañuy am liggéey Sénégal neex naa yor macha allah pétrole baa ngi fi gaz baa ngi fi waaye nag maanaam li xeeñ neexul dara di ñaan yàlla suñu borom nag maanaam mu gën a def jàmm rek ci réew mi te ñuy sàkk sarax ndax at bii day at mu doy waar ñuy mhm. wut nag cinquième président di chiffre bu doy waar chiffre cinq comme na ma ko waxee woon rek mhm. Mhm. tax na accident yeeg yooyu yëpp parce que xawaa la moo tax ñuy ñaan yàlla daal yàlla bu fi dara dara yëngooti ci Sénégal parce que at bi bu dara xewoon rek maara day taali da ngay gis ne mën na ëppi loxo macha allah ndax boo xoolee at mi jeexintalu at bi day feeñ ci nit ñi te ku ne xam na ne ngelaw la te ngelaw du deltu ginnaaw te ngelaw faalewul tabax faalewul jàkka faalewul dara mom lu mu fekk rek da koy jall ma sha allah na mag ñi def mhm. euh, interpellé def intervention mhm. ñu tok rek ñom mhm. waxtane ko rek tay it manam la Serigne muntaha wax rek njëriñ lo fekke yeen nitu aduna yi aduna ngeen bëgg diko wut amna lam ci waxon ta japp te jàpp naa ni nag ñay saaga suñu ëttu ci kilifa diine yi ngeen dara ak yoy nonu loolu dara aduna jaru ko gis nga mag ñi dañ fay tabax ben monument bo xamne ne ne won senegal nek maanaam euh, kii fële na la États-Unis mhm. États-Unis ñëw nekk Sénégal mhm. ñu am àdduna ak li ci biir mhm. te sunu mag ñi perte seen seen seeni valeur te bu dee ñun li ñu wax dëgg la ci ñun nag al ulama warasatul anbiya maanaam borom xam-xam ñoo doon ñoo doon maanaam yonante ya mhm. wàccuwaay ya lañ leen di war a jox parce que ñoom ay wirasatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. kon nañ leen di maytu mhm. di leen doyadin te loolu nag ñu ngi président Ousmane Sonko di ciy interpellé bopp leader boo xam ne dégg nga nit ñi di saaga ëttëkat diine yi ngir sa jëm parce que bu ñuy wax vrai patriote mooy sunu ëttëkat diine yi de ndax bi Sidi Alxaaji Maalik Si radiyallahu taala anhu di yëkkati doomam diko joxe Sidi Ahmed si radiyallahu taala anhu muy dem 14 18. Mhm. lu taxone réewu senegal réewu senegal li tax mam Cheikh Ibrahima Fall yëkkati seigne Modou Fallu Fall. Mhm. di ziare seigne Cheikh bintou mhm. ak mbolam njabootu seigne Ablaye Fall Ndar nak seigne Ablaye Fall Ndar ak seigne Modou Fallu Fall ño bokk ben wayjur. soxna fat Fall wad ak mam Cheikh Ibrahima Fall. bamuy dem 14 18 manam di dem mam Cheikh Rafal diko joxe ak soldat yi Serigne Touba joxe won jammi senegal kon ñoñu nak manam ben Cheikh Ibrahima Niass. Cheikh al Islam. limu liggey maam Amady Ngoone Ndak. Mhm. Hmm, Cheikh Bou Mouhamad Kunta. Hmm, Cheikh Sadul Abi kon mhm. ñooñu nag seen i njaboot. Mhm. nañ leen di jox cër gis nga nag di leen bëgg a toroxal. maanaam boo gisee tekk gi ñu ne tekk ñoom seen tekk danger la. an tatbata ahmaalakum wa antum la taskuroon danger bi nekk ci wax ak nitu yàlla. mel ni kuy wax ak sa morom. loo defoon ci lu baax day tiiteeku. day mel ni am na benn euh, maanaam euh, napp boo xam ne. boo ko boo ko ràbb yooyu jigéen doon ràbb. am na ci boo xam ne benn boo ko ci téye rek day tiiteeku. ba dellu zéro. noonu la ŋañ nitu yàlla. Mhm. parce que seen seen der poson la tooke tooke la. Mhm. te doo gis ku leen di maanaam doyadil. Mhm. ba ba doon dara ku weddi nag laajal maam Cheikh Anta. ka ko bëggoon def la mu ko def fa mu mujj. laajal ña fi nekkoon te doon def lu bon mhm. seeni seeni seeni seeni nit ña ko fekke woon mhm. kon loolu la ñuy interprété nañ ci ñëw beneen émission incha allahu rabbi gën ko yaatal suñu gaa yooyu noonu kon ñu lu la mhm. lu ci dëng ngeen xam ne suñu mata di rek maanaam moo toll noonu waaye di ziare it soxna maam Faati moom sëñ Fallou di ko ñaanal tey ñaanal sëñ Seexuna moom sëriñ Mouhamadul Murtada di sama xarit di sama sëriñ moom it sëriñ Murtada Fadilul euh, sëriñ Yaddaali di ziar yi sama soxna di soxna maam jaara mhm. di soxna su baax a baax soxna Xadija si mhm. moom it mu dem ba ja di ku baax mhm. waaw di koo xam ne daal sunu immeuble bañ dëkk dañ ko faa tuddee rek bàjjenu gox macha allah ndax moom puso la rek boo xam ne day jël di boole waaw di ziar ñëpp nag ku ñu lim ak sëñ Moustapha Amar di sama xarit di sama ménagère di sama bras di ku ma yéene moom it koo xam ne moo ne ma sëriñ bi bàyyil ndar nga ñëw fii mhm. ndax yow nit ñi dañ la soxla am nga waa Ndar ba noppi toj nga ko ñëwal tojal ma Dakar mhm. kon ñu ngi koy ziar sëñ Moustapha Amar macha allah bu baax mhm. jërëjëf sëriñ Maam Cheikh Fall borom xilmul misaan numéro téléphone am 77 la 374 22 72 xam naa ne di nga ñëwaat ci émission bi incha allah. waaw ah, ñoom yeneen i waxtaan ñu def. di sant Fally ndax eh, am na solo trop. soxna Oumou it sant moom it. Mm-hmm. Mm-hmm. ci bi. Fally it di ko sant di la sant yow Yves. jërëjëf kontaan nañu maanaam ci mm-hmm. ci safoo lépp ñu lay jaar. jërëjëf kontaan nañu eh, Fally. loolu ngay jeexale waaw xanaa Yves am mbégte rek tey. macha allah. di ma jàkkaarloo ak Serigne muy nit koo xam ni dama naan. c'est un homme multidimensionnel. ndax tay suñu wax serigne ku la gis xamni yàlla amna lu mu def ci yow. man ku la nawla laa ku la respecté la ay way ngal la way serigne yi nga xamni ne ñoo ngi xëccu serigne nanu jëm roy na jëm ji. duma ni ben serigne xamul dara. mais nanu jëm tamit jëm roy ci yow ndax ci dal geeg lépp. ndax liñ fi wax yépp xam-xam la macha allah macha allah. di gërëm soxna umu bu baax mhm. Yves di la gërëm yow di mhm. gërëm Ada VIP mhm. waaye nag di ñaanal sama président cinquième président boobu yàlla na doon président Cheikh Bamba Dièye cinquième président boobu yàlla na doon président Cheikh Bamba Dièye damay tendance im ndax maître El Hadj Diouf la yow waxal ba pare rek te boo xam la laa lay tontu <laughs> waaw yàlla na doon président Cheikh Bamba Dièye président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla jàmmal te may ko tamit ndam réew mi tamit su gënee ci moom ak Khalifa mhm. Sall. waaw Karim Wade. waaw ñëpp rek. waaw Ousmane nag. yéen daal wax leen ba pare rek wax leen ñëpp samay xarit la. wax leen ba pare waaw maanaam macha allah moom it bu Cheikh ma ji seen. Mhm. waaw kañ moom nit ku baax. macha allah Cheikh Alassane meeting de clôture mhm. maa yor micro central bi mi ko defee ca Yoff Jàmmalaay. macha allah wax dëgg yàlla Ibrahima Diassé mi ngi woon États-Unis sama xarit maa ngi remercier. Cheikh Alassane nit ku yàlla baaxal la mais man damay ñaanal le président Cheikh Bamba Dièye yàlla na ko yàlla may ndam. jërëjëf Fallé. waaw jërëjëf Yves bu ma ndokk yàlla na merci Oumou. <laughs> waa Jibril Fallé. <laughs> macha la ngay jeexale. Euh, macha allah bon avant tout d' abord damay jaale sama tailleur Maïssa Ka. Ah, di ko jaale papaam yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko aljanna. donc di gërëm euh, fi ma yendu waa RTF. muy euh, Kadja. ak nu tuddati sax Maymouna Mbodj. Xaadi. Ndeye mhm. ak euh, képp ku ñuy seetaan. Mhm. Euh, di kontaan tamit euh, Yves macha allah mhm. à chaque fois di ñu indil nit ku. macha allah koo mhm. xam ni bis bu nit ñi seetaanee dañ ci mhm. am njëriñ mhm. euh, naan la sëñ bi fal njege yaram yàlla xam na ni kontaan nañu te vraiment li nga wax euh, dugg na ci nopp yi toog na ci xol yi aussi ndax lu leer naññ nga ñu wax làmbatuwoo kontaan nañu ba fu kontaan yem di kontaan tamit Yves ci li nga invité Fally parce que ay ati at euh, bokkoon nañu FSDBJ donc ma nekkoon section bu Kër Massar naan la Fally aussi sama càmmiñ nga mais nag

te mhm. Massa Asalem. Mhm. sañse bii ñu sañse moom itamit. macha allah rafet na ñu ko ñawal. rafet na macha allah di ko nuyu. Mhm. nekk ca Massa Asalem. macha allah waaw jërëjëf kontaan nañu. Euh, di gërëm soxna Khadija Sy euh, moom nee nuyul ma faali sama doom la ku baax ziar nako. ko. jërëjëf maam Ndak artiste comédienne moom tam ma nga ba Pikine ak ñi doon seetaan ñëpp ñu ngi di gërëm di jekkadeer jërëjëf di gërëm euh, aussi. téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi doon bàyyi xel ci DTV Sénégal ci Facebook bi ak ci YouTube bi waaye tam ñu toogoon seen kër di ñu bàyyi xelu si ñu ngi leen di euh, ziar bu baax a baax te di leen ñaanal euh, atum jàmm ndax ñun sunu at la ñuy dugg nii at bu bees donc di ñaan rek lépp lu ñu fi ñaan yàlla yàlla buur bi nangu. mosal ah, ñu ci seytaane musiba ak balaa. coow xuloo xeex taal pëna dajj magasin loolu yëpp yàlla des ci at mii nii. at mii di ñëw. mu nekk at boo xamante ne at buy ubbeeku ci réew mi la ci ñëpp rawatina ci ki nga xamante ne moom la yàlla war a dénk réew mi 2024 au soir ah du 25 février ñu ne maître et la Diouf le nouveau président du Sénégal moom mooy dem ca palais ba def passation de service ak président Macky Sall amin yàlla na ko yàlla def jërë ngeen jëf kontaan nañu merci beaucoup merci beaucoup la régie jërëjëf merci beaucoup kontaan nañu Malick ci son bi ah, Mouhamed jërëjëf ah, di ziaraat bu baax a baax ñi nga xamante ne nag ah, war nañoo joxe addiye ji jirim yi man mi taxaw fii jirim la ah yónnee leen ma addiye ji bu bule bi baax na bu xonq bi baax na bu ñëwee rek baax na ndax nag jirim la jaru ngeen di raay bopp envoyé bu leen raay bopp <laughs> jërë jëf ñu joxante rendez-vous incha allah Euh, semaine prochaine ndax nag suba bisu tamxarit xarit la ñu bàyyi leen ngeen lekk seen cere tranquillement incha allah ndax ñun tamit bëgg nañu euh, toog ak njaboot gi euh, dund tam xarit bi mhm. jërë ngeen jëf sëñ maam Cheikh Fall mhm. kontaan nañu ci sa teewaay merci beaucoup la magie de la télé.